dañuy jox sëñ Maam mu dugg ci biir waxtaan wi yàlla defal ñu yàlla defal ñu nopp yoo xamante ne bii dana dégg kiimtaani sëriñ boobu dana dégg itam bind yiñ mën a jànge ci ak dundam te ñu mën koo jariñoo kon sëriñ bi nañ la jox nga dugg ci biir waxtaan wi ngir xataayu waxtu wi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi musu ji seytaane di sant suñu borom di ko jéggalu di jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko safoo di ko ñaanal xeewal di sant sëriñ bi di ko ñaanal suñu borom nga li ko gërëm di nuyu kilifa yi fii teew ci jotaay bi yépp di ko tàmbalee ci ki nga xam ne moo jiite daayira Muqaddamatul Xidma mu sëriñ Afee bu sa limaam di suñu nijaay ñu koy siyaare di siyaare waa daayira bu baax a baax ak mbooleem rek ñi nga xam ne teew nañu fii ci jotaay bi di jottali ay siyaare yoo xam ne day tàmbalee ci Maolana Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te dolli ko wér dolli ko kattan di sant bu baax daayira bi ci jotaay yu solo yi nga xam ne miin nañ ko weeru saa bu weeru koor ñëwee ñu di ko taxawee ak mbooleem rek jëf yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci barab bi jëf yi liggéeyal sëriñ bi féete fii féete taxawaay boo xam ne mutu yëpp la war ñoom ñu nekkal fi mbokk taalibe yëpp kon loolu ñëpp amee nañu leen ci ak di ñaan suñ borom barkeel ko te def ko muy liggéey bu bu bu ñu nangu ni ko sëriñ Assane waxee euh, tomb bi ñuy waxtaane mooy ay ay bind ak ay jàngat yu ñu mën a def jëlee ko ci dunduk Cheikh Khadim radiyallahu anhu arda Euh, muy waxtaan woo xam ne kon moom lañ wax ne moom lañu war a waxtaanee muy tomb boo xam ne tomb boo am solo la liñ ci waroon njëkkee sax muy laytaay gi Sëriñ Asan ni ko tàmbalee daanaka rek xawes naa mën a doyloo loolu muy kon euh, tomb bu am solo boo xam ne am na solo ndax ñi nga xam ne dañoo jiitu ñëw ba jàll moo xam ay yeneen si lañ moo xam ay nit ñu baax di jël ay bind ci seen dund loolu lislaam da koo fonk lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan doon na ko daan na ko nett si léeg-léeg mu nett li ko ay nit ñu baax ba yàgg mu ne ko ulaayika allazina hadallah fa bi hudaahum muqtadi ñooñu kat suñ borom ma leen gindi ngaa roy ci ñoom kon ñu baax ñu yàlloon ñu jàngat ci seen dund danañu dimbale ci suñu euh, ngir ñu mën a jubbanti suñu maanaam di jàngee ci suñu démb seen démb ñoom di jo mën a tabax suñ tey ngir joyante suñu ëllëg euh, loolu xam ngeen lislaam alxuraan soññu julli ñu ba tàyyi euh, di leen wax ne leen nañu nañu jàng ci ñi nga xam ne jiitu nañ laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab léeg mu nekk si leen saa salaam dara ba pare ne ko ñooñu kat seen mbir ni mu demee képp ku kuy kuy xalaat rek mën na cee jànge laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ak yu tudd yooyu di yuy saxal rek ne lislaam saxal na ne nit ñi nga xam ne dañoo jiitu woon nit ñu baax mën nañoo jàngee ki seenu dund ñi nga xam ne euh, seenu mbaax des na it mën nañoo jàngee ki seenu mujj kon lu am solo la tomb bi it am na solo ci waxtu yu ñu ko waxtaane muy jamono yoo xam ne àdduna sëpp rek dañoo nekk ci ay crise yu wute crise yooyu yi ci gën a fës rek mooy crise yoo xam ne crise yu delluwaay crise yu royukaay crise yu kenn ku nekk xam si fan ngay dellu ngir mën a ngir mën a euh, sàmm li nga xam ne mooy tax nga bokk fi nga bokk maanaam li ñuy wax sa identité ku ne li tax nga sàmm ko loolu euh, kuréel yu bari ci àdduna bi du Sénégal dong kuréel yu bari ci àdduna bi rek at yi yëpp dañoo ne ci jafe-jafe yooyu kon indi tomb bu mel nii ñu waxtaane ci loolu dina am solo ci jullit ñi am solo ci taalibe yi ndax ku rek li tax mu mën a sàmm identité mooy mu xam mbir mi li mun ta ñàkk ngir bokk ci loolu bu ko xamee ci la koy mën a téye ba ba tax du ci génn maanaam jullit bi lii tax ba li nga xam ne bu ko ñàkkee dootu nekk jullit loolu faw mu xam ko ngir doog a mën sàmm identité murit bi it faw mu xam yi koy tee nekk jullit ak yi koy tee nekk murit su leen boolee yooyu lay mën a sàmm ngir ak muritam mu mën ko sàmm kon di waxtaane dunduk sëriñ bi di ci jëlee indi loolu lu am solo la ci jamono ju ne waaye rawatina ci jamono ji ñu ñu nekk nag tomb la boo xam ne nag ni ko suñu Asan waxee dunduk sëriñ bi lépp ay bind la lépp ay ay ay jàngat la euh, moo tax waxtaanee ko yomb na jafe na yomb na ndax euh, tomb boo loo jël ci dundam rek mën nga cee génne ay bind kon loolu dana yomb ci tànn bi jafe-jafe bi fi muy nekkee rek mooy ban ngay jël ak ban nga dul baax ngay xam ndax bind yi day mujj bari ci sa kanam ba dootoo xam looy jël ak looy baax ni ko suñu sama waxee sëñ bi sëñ bi ci boppam waxal na boppam ne moom ak dundam dund dund la goo xam ne bu bu ko suñ borom xéewali bari la ba ne sax dund gi suñ borom da koo boole ci xar baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy xayaatan laa turaa li xayri mujizatan baanat li usni xayri ak yu dul yooyu yu mu wax ci ci ci dundam gi ni ko suñu borom defee baanat li kulli man lahu wilaaya kaw ci ci jaawartu euh, lastu ashuku abadan fii kaw nii jaaral ba di ajaban lil kaw nii yooyu yëpp da ciy junj rek wane ne dundam gi moom suñu borom barkeelal na ko ko defal na ko ci xéewal yu bari yoo xam ne ku ne mën na ci jànge ku ci jàngee di nga nga ci gisee mag suñu borom bi bu ko defee ni ko suñu asan waxee waxtaan wi ci ñaari tomb rek lañ koy def bu njëkk bi mooy ginnaaw ay bind lañu ñuy jël ci dunduk sëriñ bi dina baax ñu tënk tënk bu gàtt ci ci dundam boobu noonu bu ñu waxee dund gi lañ ci jublu suñ jugee ci loolu rek li ci des moom mooy ay bind yu ñu mën a jëlee ci dund googu lu ci xaj ci waxtu rek ñu ñu def ko ci moom ni ngeen ko xamee Maolana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu euh, di ku ñu miin koo xam ne ñu ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu Euh, des na ko woowee wala dina woowee boppam sax abdullahi wa xadim rasulihi muy garaat ci moom di aw tur ci moom di dàkkantal ci moom euh, bëri na ay tur yu ñu koy woowee ni ngeen ko xamee xaadimu rasul al abdul xadim cheikhul xadim sëñ Tuubaa euh, ak yu yooyu ci tur yoo xam ne danañ ko koy woowee suñ borom tànnal ko ay waajur yu baax yoo xam ne ci askan bu baax lañu bokk muy sëñ Maamor Anta Sali ak soxna bu Buso ñii ay nit ñu jub di ay borom yi xam-xam di ay nit ñoo xam ne lu jiitu démb ak bërki démb askan yi ñu bokk ci jub ak jubal rek la ñu leen xamoon kon ci askan wu tedd wu mel noonu la ko suñu borom tànnal mu feeñee ci mu feeñ jamono ci dëkk bi ñuy wax Mbàkke Bawol soriwul fii xam ngeen maamam bi ñuy wax maam maaram di ñaareelu maamam moo ko sanc mu feeñ fa jamono ci euh, nisfu Shaaban ci atum charan 1270 du sori ay 1854 yooyu mu feeñ fa jamono moom sëriñ bi kon euh, ba ni mu génnee àdduna ci njaareem ci weeru muharram ci atum 1346 muy 1927 nga xam ne bu ñu ko natteekoon ci weeri ati wolof yi nga xam ne ci la daan nattal boppam man dund na lu man juróom juróom-ñaar fukki ak juróom euh, dund gu bàkkeel bu fees dell ak njariñ ak xéewal juróom-ñaar fukk ak juróom yooyu nag fanweer ak ñett yu mujj yëpp ci loxoy tubaab bi la ko nekk xam ngeen ci bu tayee ñu génne ko fii bu subaa ñu yóbbu di ko ko fontoo di ko foowee ñett yu yëpp rek ci dundam ci seen loxo la ko nekk yóbbu nañ ko Gabon mu def fa juróom ñu indi ko yàggu fi ñu yóbbuwaat ko Mauritanie mu def fa ñeenti at ñu yóbbu ko Jolof mu def fa juróomi ñu yóbbu ko Njaareem mu def fa fukki at ak juróom-benn ba ni mu wuyjee boromam ñëw fii ci Touba. kon ci dund gu metti googu la dund euh, gu xat googu nga xam ne bu ci bu réalisé woon bu réalisé wut woon dara sax des na ko mën a comprendre maanaam des na mën a des na ko nangul ndax euh, wax xawtoon a mën a ne muy jëf loo xam ne lu ñuy waxtaanee ëllëg lay doon ci diggante boobu mu nekk ci ci ci loxoy tubaab yi. waaye yàlla dimbale ko ba diggante boobu mu nekk seen loxo yëpp defu fi lenn loo xam ne lu lu diine bañ la wala loo xam ne euh, sax wala mbañum rus dana ko dana ko ci jam sëñ bi diggante boobu mu nekk ci loxo tubaab yëpp suñu borom defal na ko sutura ba deful dara lu ko diine jeme euh, bi mu tollee mu doonoon borom xam-xam bu mag boo xam ne xam-xamam da ko da koo jaar si ko ñëpp di jaar bi mu tollee ci jàng suñ buñ delloo ci li suñ mbàkk bu sa wax euh, ni yaayam sëriñ bu soobee moo ko dalal moo ko dalal ginnaaw bi mu jox ko tafsir Mbàkke Ndumbe koo xam ne maam la si moom ndax bu soxna Asuwa la mu jàng ci moom alxuraan bay bëgg a mokkal tafsir génn àdduna mu dem ci mu dellu kër waajuram bu góor si maam Mor Anta Sali fa laa galee njàngum alxuraanam bi njàng mi àggee mu daal di tàmbali njàngum eh, xam-xam yi diine yi lislaam yi fiq ak yu aju ci yooyu ba xaw caa sori jàng na ci ñu bare bëri ginnaaw bi ñu jox ko tafsir Mbàkke Ndumbe ñu jox ko eh, suñ Sàmba Tukulóor koo xam ne moo waajuram bu góor ay doomi lay mu wéyal di jàng ci moom nee na sax sëñ Maam Sali bàyyi na ko Saalum ñëw Kajoor lu mat at moom mu des ci sëñ Sàmba Tukulóor di ko jàng wax nañu ay risaala ak yooyu ci moom la ko jàngee ba ni mu ñëwaatee Kajoor fekk si waajuram di wéy di jàng ci moom jàng na ci ñeneen ñu bari ci digdigal boobu it euh, ku mel ne Cheikh Mamadou Fadil Addaymane yi mi nga xam ne am ci waa Mauritanie la bokkoon daan ñëw ci gox boobu wax nañ ne sëñ jàng la ci moom rawatina lu jëm ci ay man ak ay balaaxa yu demee ci noonu ku mel ne xaadima jaxate kala sëñ bi jariñu jariñu si moom ci xam-xam waaye nag nee na moom jàngalu ko ab téere nee na na xaaj yi yóbbu mu ab téere mu di ma ko jàngal waaye dama daan bind ay bayit di ko ko jox mu di ma ko toppaatal sa toppee jubbante jox ma ba ni mujjee ne ma nag léegi say bayit ma cee gis ay njuumte léegi daal li ñu seq mooy ngay bind di ma jox may mokkal rek loolu la ñu seq kon foofu la jaar ci xam-xam ba ñi amoon xam-xam te jamono teg moom ñëpp seere ne Sëñ Tuubaa borom xam-xam bu mag la te bu ko kenn ku ko yër xam ne kii moom ki bind lii moom borom xam-xam la bu gëstu la bu xootal gëstu la borom xam-xam la bu ràññee loolu moom suñu borom defal na mu doonoon nit koo xam ne it ngi feeñ jamono ci askan woo xam ne askanu tasawuf lañ ci tarixa xaadiree la ñu bokk nekk ci seen biir bi mu demee ba toll ci jël wérdu mu jël al wérdul xaadiri jële ko ci waajuram yeesalaat na ko ci ñeneen nit dox ci doxin woo xam ne sax askan wi mu bokk mën nañ ne moom rek lañu gis mu mu jox ko yitte jooju dem fu ne di ko fa yeesu fu mu dégg ñu ne am nañ ko fa mu dem yeesu fa wirdu wi dem ba gànnaar yeesal ko fa waaye silsila xaadiriya bi mooy moom fi mu jëlee wirdu fi mu jaar fi mu jaar ba àgg Cheikh loolu lépp di wane solo ak yitte ji nga xam ne joxoon na ko joxoon na ko euh, dox ci yoonu yàlla muy wéy ci noonu ba wax nañu sax yenn jamono yoroon na wirdu xaadir yi ak tijaan yi ak wirdu chaazili yi loolu lépp di joo xam ne joxoon na ko joxoon na ko loolu doonoon nit ku maandu ku bëri yërmande ku woyof koo xam ne ku dëdd àdduna xam ngeen jamono ji mu nekk njaareem daanaka Sénégal mën nañ Sëñ Tuubaa mooy ki fi ëppoon doole boobu ndax ñi ëpp doole ci réew mi ñëpp moo leen yilif ku yilif maam Cheikh Anta yilif maam Thierno yilif sëñ Mandumbe Cheikh Ibra Fall sëñ Issa Dieng ak ñi ma tuddut ñooñu ñëpp ku leen boole yilif réew mi nga nekk yaa fi ëpp doole te li muy yilif yilif ñooñu it teewut ci ay néegi ñax la dëkk di dund dund dund gam amoon démb ak bët ki démb rek Euh, ngir dëddu àdduna boo xam ne dëddu na ko bu ngeen xoolee yére mbubbam yi muy sol rek ñi ci mas a gis mbubbam wala ñu gis ci photo bi dangeen di gis ne yére yi sëñ Tuubaa yére yii la rek ay malikaan ak ay perkaal ak yii nii rek yii dong la ku ko mas a gis sax yi ci ëpp loxo lañ ko ñëwee wëñ la nga xam ne mbubb la daal day fexe ba sol mbubb noonu rek mbubbum sëñ Tuubaa kon fi fekkoon fii ci ñun ñu la ko joxee te waxuñ na la mbubbam doo ko jël boo boo xamee ne moom da nga ko jël muy sa taxe àdduna ak waaye boo ko xamul doo ko jël ndax doo ko soxla foofu la àggoon ci toroxlu foofu la àggoon ci dëddu àdduna yore lépp te nanguutu dara yilif lépp te dara ñoru ko ci euh, kon euh, nit ku maandu la woon nit ku dëddu àdduna nit koo xam ne ku daa jëmmal dëggi dëggi lislaam la woon euh, noonu la wéyee ci ci yoon wi ba ni ko suñ borom baaxee nag mu am tariixa boppam di di loo xam ne lu mag a mag lu rëy rëy loo xam ne man nga ne mbooleem lu mu doon sàkk rek ci la ko amee di loo xam ne ci moom lañ ko njëkk a déggee ci gox bi yëpp nit ku ñuul ku ku ku jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam direct am wirdu boppam am tarixa boppam loolu moom fii fépp suñu wàllu ko jëkk déggee ko mujjee déggee yi tamit nag loolu kon di lu rëy loo xam ne suñu borom baaxee na ko ko euh, booloo taxoon ba Cheikh Cheikh Sidiya sax li mu koy woyee rek ne acheikhu ahmadu ni'matun awlaha ne Sëñ Tuubaa mii daal euh, xéewal la rek loo xam ne suñu borom moo ko baaxee mbindeef yëpp moom noonu la meloon ci ci nit ñi bi mu fi ñëwee ba ni mu fi jógee lu jëriñ nit ñi rek ci la nekkoon euh, daal leen xettali loolu nag daa ko bind daa ko wax daa ko daa ko jëfe kon foofu la jaar ci ci dund gu barkeel googu dund googu nag ci lañ bëgg a jël ay ay bind ngir ma njëkkanteeg euh, waxtu wi rek su ko defee ni ma ko waxee woon bu ñu duggee nag ci tomb bi nga xam ne mooy dëgg-dëgg waxtaan mooy ay bind yu ñu mën a jëlee ci ci dunduk sëriñ bi ay bind yu ñu mën a jëlee ci dunduk sëriñ bi mën nañ koo xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi ay bind yoo xam ne dañ koy jëlee ci ni ni suñ borom doxeek moom suñ borom min jëflante euh, Cheikh Khadim loolu ay bind la ay bind gi ci yoo xam ne jullit ñi mën nañ see jëriñ beneen xaaj bi nag di ay bind yoo xam ne moom ci aw melokaanam ak aw doxinam moom sëriñ bi ci lañ koy jëlee bu dee bu njëkk bi muy bind yuñ mën a jëlee ci ni suñ borom jëflante moom bi ci jiitu mooy aaya suñ borom di wax ne inna allaha ala kulli shay'in qadir ak fa'alun lima yurid ne suñ borom dara tëwu ko te it lu ko neex def loolu ku jàngat dund Cheikh Khadim radiyallahu anhu ñaari mbir yooyu day fës lool ci fi ko suñ borom jaarale ba fi mu ko mujjal ndax ku xool fi mu ko jaarale ñu ngi ko boloon ci ay noonu ni ñu amee woon kattan te lépp lu ñu xam ci lu ko mën a faat wala lu ko mën a lor ñu di ko def subaa ngoon guddeeg bëccëg te suñ borom aar ko sàmm ko ba mbiram mujj fi mu mujj da ngay xam ne li suñ borom waxoon ne inna allaha ala kulli shay'in qadir ak wax ne fa'alu loolu mooy li dëggu ci ni suñ tubaab ni mu jëflante ak moom mooy noonu yëpp ànd nañ bëgg koo lor waaye suñ boroom ci kattanam ci cof ci coobareem bi nga xam ne lu ko neex mu def ko ci ci la ko sàmmee ba mu mu mu mujj fii nga xam ne euh, day day wax sax moom ne yoonu géej gi yëpp li ko waral mooy suñ borom daa am ñett yu mu ko bëggaloon rek bëggoon na ko jox daraja bi màgg ci moom bëggoon na koo def muy liggéeykat yu ni sansalam bëggoon na ko def mu doon kii xecc la ñoñam ñett yooyu la ko bëggaloon te su demutoon du ko mën a am moo tax mu dem muy mu nekk abdullahi xadimu rasulihi nekk xaw xawmihi muy sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna xaw mi waa an akuna xaadiman fi dawmi kon foofu bind a ngi fi ci bépp jullit mu xam ne suñ borom li mu waxoon ne inna allaha ala kulli seen qadir ba léegi jugu ci mooy suñ borom lu ko neex mu def ko te tëlewu dara loolu bind la ñaareel bi ci ni suñ borom jëflante ak moom it des na ci jàngee ne li ñuy li alxuraan di wax ne wala aqibatu lil muttaqin mooy dëgg rek mooy mujj dëgg rek mooy mujj ndax euh, sëñ Tuubaa jëflanteem ak tubaab yi jéggi woon na kenn ku tudd Cheikh Ahmadou Bamba rek tubaab yi di ko génne dimension bi weesu woon na lool day mel ne diggante xëccoo la woon diggante dëgg maam ak neen tooñ ak maandu lëndëm ak leer diggante yooyu ñoo doon ñoo doon xëccoo ngëm ak kéefar ngëm ak wetti nga xam ne mujjoon na jéggi jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ci waaye fi ñu ko jaarale fépp mujj nañ mboolem dañu ko doon bañal tey jii la gën a yaatu tey la gën a yëkkatiku lislaam tey dafa gën a sampe yoonu murid gi mu doon ñu doon ko ko tere la gën yaatu ba bokk ci yoon yi gën a rëy ci réew mi ak ci Afrique gépp mbirum suñ bi tey la gën a yëkkatiku tey lañ ko gën a fonk tey lañ ko bëgg te loolu donc lañ ko doon bañal xam ne kon loolu day wane rek ne dëgg lu mu yàgg-yàgg rek mooy mujj wala aqibatu lil muttaqin li suñ a wax ne wa inna jundana lahumul ghalibun lu mu yàgg-yàgg rek Euh, ñi ne ci dëgg ñooy mujjee ñooy mujj ndam la moo tax biñ koy indi moom sëñ bi jaareel sax mu mu muy wax ñaari bay yooyu ne kat ñu may indi fii yaakaar ne dañ may yàqal fekk xamuñ ne suñ borom daf ma ci defaral ne ñëw gi ñu may indi nag suñ xamoon li ma ci jëlee danañ ma ko soxale ba dañ ma fi indi daal ne ndax ñoom ñaari yi lañ ciy jëlee ñu fi ñëwee seen mbir da ciy jeexee dañ ci loro man nag ñaari yi laa ci jëlee moom mooy sama mbir da ciy sax ba faw te suñ borom daf ma ciy terale muy raamu masiri ila jubal la daa rashasin law aayanu sirra ma fi sayri maa raamu fa sayru mawtun liman xad naazama wa azan wa innahu liya ibqaaun wa ikraamu ne moom ibqaa ak ikraam la ci jële suñ borom da ciy saxal mbiram muy wéy ba faw da ko ciy teralit te loolu bi mu ñëwee njaareem ni mbiram yëkkatikuwaatee loolu ñëpp ñëpp teg ci seen bët loolu di wane ne kon li suñ borom waxoon ne wala aqibatu lil muttaqin loolu lu fës ci dunduk sëriñ bi la mooy lu mu yàgg-yàgg rek dëgg mooy dees na ci jàngee li suñu borom wax ni inna allaha laa yudii'u ajral muhsinin mooy ku jëf yàlla fay la ku jëf rek suñ suñu borom dina la fay ndax sëñ bi lim daj lépp ci ay coono muñ ko yemut ci muñ ko waaye sant ci suñu borom gërëm ko ci ci lim ko teg xam ne moo ko teg te xam ne daa am ko mu ko namal moo tax mu jox ko ko loolu uh, moo tax mu mujj mu sax rek ci boromam ba suñu borom mi ñëwee indi fay gi mu ko fay mooy li ñuy wax ne man kaana lillaahi kaana laahu lahu maanaam képp ku nekkal yàlla rek faw yàlla nekkal la wax nañ ne sax Cheikh Fall daan na ko daan na ko firi ne ne man kaana li kumu rek kaana kooka lëfoo waaw ku koo nekkal rek kooku dana la nekkal daan ne kon rawatina bu yàlla suñu borom mi nga xam ne nag moom moo gën moo gën a baax moo gën a maandu loolu it fes na loolu ci ni suñu borom jëflantee ak moom euh, noonam yii nga xam ne ñoom la dajaloo nit ñu doon ko moo xam ay sénégalais lañ moo xam ay africain moo xam ay tubaab wala naar ñi ko ci doon dëngee fiñ mujj seeni mujj feeñee ne ci li suñu borom di wax ne fanzur kayfa kaana aqibatu zalimin mooy kuy tooñ faaw dina am bés kuy tooñ du mucc te kuy tooñ faw dina am te sëñ bi bu ñu toppee mbooleem ñoom jëflanteeloon donte genn bëccëg lañ ko mas a tooñ génn ñu kaw suuf digguwuñ ci kaw suuf loolu la suñu borom toroxal na fii ci kaw suuf laata ñu fi doog a jóge ñëpp ñëpp ñëpp suñ bay géey seen li dajale na ci ab téere boo xam ne ci tubaab la ko bind am na yeneen mbokk ci dajale leneen tuddee ko fanso koy fakkaan aqibatu zalimin xëy na balaa yàgg dana génn loolu lépp di wane ne bi Tuubaa mboolem ku ku ko mas a dënge suñu boroom wan na la ko fii ci kaw suuf laata nga fi jóg loolu nag am na ay bind yu ñu ci man a jàngee ñun mën nañ cee jàngee ne kat ndax boo xoolee sénégalais yi nga xam ne ñoo doon jaxase sëñ bi ak tubaab bi ñi ci ëpp si ñoom mbir mi mu ngi déparé woon ci fiiraange rek ak coxor ak ñaan teewuñu seen xol yéemu ñoom moom seen bopp ba mu yóbbee leen ñu jóg def ay acte jóg dem ci tubaab bi leen ak sëriñ bi Euh, loolu xam nañ ci ay nit yu bari yoo xam ne ñoo tudd ay tur xam ne dëkk ñëpp ñoo xam ne mbir mi bi ñuy départ gisoon nañ suñ benn mbooloo mi ñu xaw koo fiire rek dem nañ mujj nag ba mënatuñoo tee seen bopp ñuy ruuxale diggante ak tubaab bi kon euh, loolu bind gi ci ne ab jullit war naa ko képp kàttanam lépp lu jëm fi coxor wala kiñaan wala fiiraange ndax da koy yóbbee ay musiba bu ko muy tuut wala ayaasu billah tubaab yi it bi jaxase ko di wax leen loolu buñ teeyoo duñ dal ci ko sëñ bi ndax kon danañ xam ne mboolem liñ leen doon wax dana jaxase moom dëgg waaye ñàkk a teey gi it moo leen yóbbee ñoom it ñu ñu daal di doxee niñ doxee kon loolu bir na gi ci ne li alxuraan waxoon ne yaa ayyuhal lazina aamanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu su su su benn waaye ñëwee a def a wax jël benn position na ngeen na ngeen gëstu ba xam ne lii kat dëgg la te nii la demee te dinañ faral di am nag bëri na ay girawaale yu am yu léegi ci àdduna si ñëpp réew moo mën a dem yoo xam ne ci ay demale ak ay fekkale rek ci lay ci lay ci lay jóge buñ ko toppee ba ci biir ay rumeur rek lay doon comme ni ñu koy waxee noonu fi ñu mujjee tooñ war nañ cee jàngate ci xam ne kuy tooñ moom faaw dina am bés bi may mujjee ci ni sëñ bi jëflanteeg ni suñu borom jëflanteeg moom rek mooy li suñu borom di wax ne say yaalu laax baada usrin yusra mooy daal euh, képp ku bëgg teraanga faaw di nga nangoo sonn suñu borom noonu moom mooy ni muy jëflante ak jaamam ñëpp ngay jullit ngay leneen ku sonn gis résultat bi fii ci àdduna àllaaxira moom boo dem jullit boo jaamu boo àggee fekk ko fa mooy li sëñ di wax rek ne wax la bi anna laa yunaalu illa bi xadril kat bi fii doo ci am lu dul lu toll ne la nga ci daj ci ak coono rek lu toll noonu da nga ci am euh, moo tax sax moom junj loolu ci mbiram wane ne kat nabbaxtukum maana ala kaddin bada lii xabla an ara lii xabla an ara ridan mu abada maa ngi leen di xamal ne daj naa coono yu méttee métti laata muy am ngërëm sax li nga xam ne am naa ko waxaat na feneen sax ne nabbaxtukum maan ala kaddin bada li xabla an akuna baxran musbida maa ngi leen di xamal ne kat euh, daj naa coono yu méttee métti te tamit laata may mujj mel ni ma mel doon géej gi duusu rek ci ay xéwal loolu lépp di wane ne jullit bi dafa da ko war a jaral maanaam dafa war a xam ne teraangay àdduna ak teraangay alaxira teraangay àdduna liggéey koy maye teraangay alaxira jaamu yàlla ma koy maye maanaam ku ku ku ku bëgg faaw nga nangoo sonn kon loolu ay bind la yoo xam ne mën nañ koo jëlee mu juróom yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci ñi nga xam ne suñ borom jëflante na ko ak Cheikh Khalil radiyallahu anhu beneen ñaareelu xaaj bi ay bind la yoo xam ne nag moom day jugee rek ci doxin mi nga xam ne moom sëriñ bi moom la dox ni ni mu doxe muy ay jikkoom muy ay meloom muy ni doon doxe yooyu moom yii may bëgg a wax moom yuñ mën a roy la du ay xarbaax du ay kéemtaan waaye yu yu yuñ mën a roy la moom yuñ mën a roy la bokkut ak jël jëlub der julli ci géej géej yooyu bokkut ak yooyu yii moom yuñ mën a roy la ci képp ku ko bëgg bu ko defee man nañ cee am ñeenti yu bokkut yu jëm ci wàllu diine xam jëm ci wàllu jikko yu jëm ci wàllu kilifteef ak ñi ñilif ak nag yu jëm ci wàllu rek euh, suñu biir jëflante bi bu dee xaaj bu njëkk bi muy lu jëm ci wàllu diine ak xam-xam bind bu jiitu buñ ci mën a jàngate mooy euh, Seexul Xadiim bu xool dundam gépp gis ni kii ak jullit la bu fonk jaamu yàlla fonk jaamu yàlla mooy bind bu njëkk bu ñu war a jël ci ak dundam fonk jaamu yàlla jël boo ne jaamu yàlla jëlal naa farata yi waaye sunna yeeg yee ca aju fonk koor yi fonk koor yi gàttal fonk naafile yi gis ngeen sëñ Basiru sax wax na ci meneen baaxi Xadiim ne sëñ bi daan na julli ñaar juróom-benn rakka wala ñaar rakka ginnaaw timis yoo xam ne Baqara ak Aali Imraan la ci tari bis set amul jël ci loolu bokkut ak yeneen nawaafil yeeg tahajjud yi di def dafa yooyu di wane ne kon jullit bi war naa xam li ko fi indi taba ko fi te mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kër kër gi lu mu bari bari yëngu li lu mu bari bari yitte ji ñu fi indi woon te baju fi mooy sàkk ngërëmul yàlla te mënee su koo sàkkoo ci lu dul jaamu yàlla ñaareel bi mooy ab bind bu ñu mën a jël ci loolu ñuy sàkk xam-xam lay gën a yitteel mooy nangoo euh, tegoo ay coono ngir ngir sàkk xam maanaam Sëñ Tuubaa bi muy sàkk xam-xam da cee sonn ay coono yu méttee métti am na ñaari xista yu yu yéen yu ci nekk li ne ñaari téere yi njëkk jëndal boppam nga xam ne moo ko jënd moomal ko boppam ci xaalisam nee na téere bi mu njëkk a jënd moom ko mooy téere imam Ghazali bi ñuy wax bidaayatul hidaaya nee na téere bi boobu ma nga ci Saalum toll ci njàng am njàngam sax soreegul yenn sori yi benn naaru gànnaar di ko jaay ne ko benn dërëm la ko jaay nee na waaye yoruma njëg gi nag amu amu yoruma njëg man na ko yoruma ko de waaye jàllal na ma ko léegi dangay ñëw ñu ànd fu mu lijjanti ko rek ma jox la dërëm tëjal téere bi nee na mu ne ma waaw nañ dem sëñ bi nee na man sama aada da cee bokkoon du ma laaj kenn xaalis bu ma ñëwee fenn daal dinaa ñëw rek bu dem jotee ma dem buñ ma joxee baax na suñ ma joxu tam du ma du ma laaj kenn ndax xam ngeen laaj rek dafa baaxut laaj moom yàlla rek moo moo ci mata laaj pour yàlla boo ko dee laaj loolu mujj sopp yàlla bu mu sant yu gàtt loolu sëñ bi nee na bi ñu ñëwee ñu dem ci euh, kenn koo xam ne ak taalibe la woon ci si ku yor bitig di jaay maanaam taalibe doon na jàngee ci moom daal nee na bi ñu ñëwee maanaam naar bi ñu nuyu ko nee na waa ji bi ma nuyoo rek dafa tàggoog sa ko mer daal di may xëcc yóbbu ma ci ginnaaw ne ma lii nga sol nee na yére yi ma sol xaw naa màgg daal mu ne ma yow doomi kilifa sa bàyyi sa waajur ni nga fi mel ni mu toll nangam na ngay sol li waroo sol li nee daal di génn mbubb yóbbu ma ci ginnaaw ne ma sol ko ci summi mi nga sol sëñ bi nee na ma jël rek daal di sol summi mi ma soloon moom lem ko teg ko ci yoonam fa ma daal demaat ñu toog ba ñibbi jot mag naar bi ñu dem bi ñu demee ba ci yoonam mu jëlaat mbubb moom amoon mbubb mu xottit moom solon daane naar ndax bëgg nga mbubb mu bees mi jël téere bi naar bi ko bu ma ci jotee nga yaa moom mu summi jox ko sol mbubb mu xottit moom solon téere boobu nee na mooy bi mu a jënd ci kaw suuf nga xam ne ci mbubb la ko jëndee mbubb muy bidaayatul hidaaya téere boobu nee na bi mu demee ba ci kanam ba am njàngam sori moom la mujj taalif tuddee ko tuddee ko mu la yéen suluuf mu lay yëngu suuf téere boobu noonu ba mu njëkkoon a jënd xam nga mu lay yëngu suuf moom la yees waa tuddee ko mu lay ñaareelu téere bi moom it mooy téere bu saafu laa mitul na loolu kajoor lay doon xam naa nee na boobu benn naa ko dinañ ko jaay ci ñetti dërëm mu wax la ma waxoon ko njëkk rek ne ko nañ dem ma lijjanti ko nee na ngi ànd moom ak maam Thierno ak sëñ Masamba Diop Samb nee na ñu wër nangami dëkk. gox yi la ñu wër yëpp wax dëgg amuñu ñu ñibbisiwaat ak loxoy neen naa bi xaw na koo tooñ sax nag waaye bi ñibbisee fat euh, suñ borom yombal bi moom jot ci téere bi nga xam ne ñetti dërëm yooyu rek laata ma ko jot nee na wër na nangami dëkk amu ci sëñ mot jom Masamba nettali na ko ne sëñ bi fekk na leen jaay nañ ñu toog ci benn jotaay moom sëñ mot jom Masamba ak sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Modou Moussa nee na sëñ bi tagal leen ndab toog na ci ba yàgg mu mel ne ku xaw ak kii ak ñoom ne leen di am na bis bàyyi kii joxoñ sëñ Modou Moussa ne leen ànd naag bàyyi kii joxoñ sëñ Modou Awa Balla ak bàyyi kee muy sëñ Modou Diop Massamba ne na ñoom ñett ñu àndi wër bëgg ñetti dërëm ñu wër nangami dëkk te mënuñu ko am ne leen loola nu mu demee tey jii nii te sëñ Modou Diop nee na jamono bi mu koy wax ñun dañoo seex ba soxlawuñu sax suñu waajur li ñu yor ñoom seex nañ ci kanamu sëñ bi nee na mun leen gis ngeen nii mbirum suñu borom ni mel nee na ñu seen bàyyi àndoon nañ bis bëgg ñetti dërëm mu tëleen ci nga xam ne kon coono yooyu yëpp da ko doon toggoo ngir ngir ngir xam-xam kon loolu it na ngi ci ci ñu toll ci sàkk xam-xam ci ñu xam ne dañoo war a nangoo sonn ngir xam-xam mooy la moo xam maam Cerno ca kuntaati man rek ba mu jeex kon kuy toll ci sàkk xam-xam rawatina jamono ji nga xam ne luxe bi dafa bari euh, téléphone yu cher yi yére yu cher yi yooyu yëpp luy fëkk luy fëkk jàngkat bi la jàngkat bi moom dafa war a xam ne rek daa am lu ko tax a jóg mooy sàkk xam-xam bu dee wërsëgam mu bàyyi ko ci loxol suñu borom euh, is rabbuna mutakafil risqa allasi yataallama loolu lu lu lu wér la beneen bi ci toppit mooy bind buñ mën a jëlee si ñi nga xam ne ñoom jàng nañ ba noppi wala boog jàng nañ ba sori mooy nag ñuy dundal xam-xam sëñ bi bi mu sàkkoo ba ba noppi yemut ci am xam-xam di jàngale waaye dafa dundal xam-xam ni mu ko dundalee mooy dafa taalif waaw nit bu sàkkoo xam-xam ba noppi bokk na ci yi ko aw yi gën a xaar mooy mu dundal xam-xam mu ne mu ubbi ay daara di jàngale waaye mu taalif te taalifam yu bari yi ngeen xam ne diwaan wax la mu diine rek dajale nañ ci lu mat ñaar fukki ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay mbir ci ay téere xam-xam bokkut ak min wasaaya bi nga xam ne rawduraayi ngénn woon nañ ko bokkut ak min xikam bi rawduraayi ngénn woon bokkut ak min fatawa bi nga xam ne Sëriñ Abdou ko génne yooyu yëpp ay mbind yoo xam ne Sëriñ loolu moom mm, bind ngi ci ci ne kon ñiy sàkk xam-xam bu ñu sàkkoo xam-xam ba sori war nañoo góorgóorlu ci ci dundal xam-xam mën nañoo jëlee bind it ci dunduk sëriñ bi ci ak ubbiku goo xam ne day ànd ak yeewu ubbiku ci ñëpp waaye boo xam ne nag yeewu da ciy ànd yeewu mooy man ngaa jël ci ñëpp waaye da ngay seet bu ñëwee nag euh, ku xool ci misaal lu mel ne Masaalikul Jinaan xam ngeen sëñ bi mu na ci borom xam-xam yu bëri imam Ghazali sëñ bi da ko di dellu ci moom bu bëri ba ne sax bu su ma jëlee ci moom dinaa ne xaala diw su ma nee xaala dinaa wax turam daal ba mu des imam Ghazali su ma nee xaala rek moom laa bëgg a wax ndax li ma jël li mu jël ci moom dana bëri waaye teewut li mu koy fonk fonk di jël ci moom dafa am rek wet gum ko soxla mooy li li li ñoñom soxla loolu rek la jël ci imam Ghazali maanaam imam Ghazali li xam-xam bi bari bari li bind ci falsafa maqasidul falasifa ak beneen téere bu ndaw bi almunqidh min ad yooyu yëpp da ko faa dem jël lim soxla ci ihya ulumuddin indi ko xëy na léeg mu laaj si xut ya indi ko dugal ko ci masaali ko ñu naan ndax ñi muy taalifal ñoom lii lañ soxla lu jëm ca ca ca falsafa xam-xam fu muy jóge ci xel yi lay jóge wala ci cër yi wala ci fan la nekk yooyu yitteelu ko moo tax dafa ko faa baax doonu ne dafa baaxoon waaye ñii muy wutal soxlawuñ ko moo tax lool it jàngkat yi baax na ci lool ñu ñuy bàyyi xel seenu askan mooy lu ñuy jëggaan yi di ko indi na doon lu dëppoog li ñu fi soxla fii ci barab ndax loolu loolu rek ay mbëkkante lay indi ndax ku jëggaane ay xel rek dangay indaale ay jikko yu bees ay jikko yu bokk rek yi ñu fi xamoon loolu it bind la bu ñu mën a jëlee ci ci ci dundug sëriñ bi bañ a sànq sa dund bañ a sànq sa dund fonk sa waxtu dund gépp nga fexe ba lépp nga feesal ko dell ci njëriñ xam ngeen ne sëñ bi bi mu feeñee ba ni génnee àdduna dund bi lépp lu barkeel la amul wenn waxtu ci ak dundam moo xam dafa neen du suba du ngoon du bëccëg du guddi waxtu yëpp da koo dundal ba mu fees dell ak ak njëriñ nga xam ne loolu sëñ Basiru di wax naan fa layluhu nahaar wa nahaaruhu nuur maa lil ahyaai fi zamanihi nasib innama huwa li rabbihi tabaraka wa taala nasib bi guddeem yëpp ay bëccëg la bëccëgam yëpp leer la ay caaxaan amul amul place ci dundu Seexul Xadiim radiyallaahu anhu lépp lépp suñ borom la ko jagleen loolu moo ko may jëf yu mag yi mu jëf ak ni mu ko teelee def xam nga ne suñ bi tàmbali naa taalif te amul ñaar fukki xam nañ ay bind Sëñ Tuubaa yoo xam ne bi mu koy bind amagul ñaar fukki at loolu yitte la ju yoonu murit bii li muy rëy rëy ñu koy woote ci fanweeri at la toll fanweeri at fanweeri at ci la toll fanweeri at mooy ñi feeñoon jamono 93 bi muy woote yoonu murit foofu la toll Masaalikul Jinaan li muy rëy rëy ci fanweeri at ñaar la ko bind Daaru Salaam ci ay fanweeri at ak ñeent la ko taalif Touba gi fanweeri at juróom-benn ci la ko taalif bi ñu koy jëlee fii di ko yóbbu ci géej gi ci ñeent fukki at ak ñett ci la topp ci la toll doonul góor gu màggat boobu fekkoon na yii ñu ko toppee moom mu def yëpp ba noppi sëñ Tuubaa bi gi fekk na mu seexal ay ay nit samp ay jëwriñ xetti na ay ñu dul jeex samp ay daara yooyu defoon na ko doo ko dem ci géej gi nga xam ne loolu lépp ci ci ñeent fukki at yooyu la ko def te fi ne nii jamono ji ñu loolu ku am ñeent fukki at sax daanaka def dara wala koo laaj lu mu def maanaam ki gën a jàmbaar da lay wax tabax naa kër wala am naa oto loolu du loolu du dara bi ndax ku faatu tey bu suwaa ñu miraas ko loolu bokk ak réalisation kenn ku nekk ci ñun rek bu ko neexee mu laaj boppam moom bi mu ak léegi lan la jëfal lislaam kenn ku nekk ci ñun fii ñëpp mën naa xalaat bi mu feeñee jamono ak tey lan la fi jëfal lislaam ku sa xel demut ci dara leer rek xamal na jëfe ko dara moom ndax kër moom taxul ñuy wax oto taxul ñuy wax yooyu moom wërsëg la ñëpp ci bokk yam ndax ñu di julli sax am nañ sëñ Tuubaa bi bi bi fi suñu mënaan sel xëyee jóge moom bu génnoon àdduna ci ngoon googu maanaam bu woote wutoon yoonu murit tam moom liggéeyal na lislaam moom sëñ Tuubaa moom liggéeyal na lislaam laata muy woote yoonu murit mooy ak dundam dara neenu ci kon loolu bind a ngi ci ci ne nit ki war naa fexe ba bañ a sànq ak dundam bañ a ak dundam te fonk waxtoom bu baax a baax ñaareel bi ay bind yoo xam ne nañ koo jëlee ci ci wàllu jikko ci wàllu jikko ak melokaan bu njëkk bi mooy njariñul njariñul gëm yàlla ak doyloo ko gëm yàlla ak doyloo ko njariñ li mu am ci ab jullit ndax sëñ bi dundam gi yépp day wane jaam bu wakkeelu si boromam ngëm yàlla gu mat sëkk moom la jóge woon ngànnaayoo wàkkilu suñ borom doyloo ko xoolul benn mbindeef du jàmbat kenn rafet njort ci boromam sàmmoonte teg yi ñuy war diggante ma borom bi lépp lu mu dogal mu neex ko bi mu demee ba am loolu ci la am pas-pas am yëg-yëg fas ci xolam gëm ci lu wér ci ne njariñ ak lor ci suñ borom dong lay jóge juguwul ci ñu weex ñi juguwul ci ñu ñuul ñi juguwul ci ñu baax ñi juguwul ci ñu baaxut juguwul ci soppe yi juguwul ci ñi nga xam ne ay noonu lañ moo tax mu doon wax man zanna gayra llaahi yughni fa zaaka fi daarayni zu kaddin wa képp ku jaa ku yaakaar ne am na kenn ku mën a jëriñ wala mu mën a lor ku dul yàlla suñu borom subhaanahu wa taala kooku àdduna ak alaaxira ci coono lay dëkk moo tax bi mu amee pas-pas boobu nag moom ci borom diggante mag borom doyloo ko ci lu wér moo tax mu mujj amul menn mbindeef moo xam ne mu ne amul menn mbindeef muy ragal lastu axaafu durra xalqin baadama fawwadtu amul mel ni mbindeef moo xam ne daal maa ngi ragal ci moom lor ndax jël naa sama lépp teg ko ci loxol suñu borom bu ngeen xoolee bëgg na loolu ay jëf yu mu jëf yuy wane wakkilu gu mu wakkilu ci borom wax na ne keroog bi mu nekkee ndar ñu koy bëgg a yóbbu ci géej gi te demagut fanweeri fan ak nangam yooyu mu fa def nee na toll na ay jamono mag yi njàmbur yi kilifa yi am ñu fa ñëw ci moom ne ko kat dañoo bëggoon nga may ñu ñu wax ak tubaab yi tinu la ci ñoom ñaan leen daal nag wax dëgg ñun xam nañ la xam nañ li nga mel ñaan leen ngir ñu bala bañ laa bañ laa génn dëkk bi wax a wax seen wax yu rafet ba pare nee na ma sant leen ne leen nag xallu bayni wa bayna rabbi wa huwa atfau bi minkum wa alam bi ma huwa al aslahu li nee na ma ne leen sant naa leen gërëm naa leen waaye nag bàyyi leen maag suñ borom rek suñ boroom moo ma gën a yërëm ci yéen te moo gën a xam li gën ci man kon génn leen ci roy ko Seydina Ibrahim te la ko malaayka yi waxoon mu ne leen suñ borom xam gi xam ne maa ngi fi rek doy lu mu ne woon waaw rek lu génn ndax ñun dañu ko lijjanti mu ne leen génn leen ci rek waaye wax suñu borom loolu wakiilu gu mat gu mat sëkk gu mu am diggante ma boromam rek moo ko may te dañu ci loolu gis ngeen ba keroog bi muy génn daarul mën naan te kenn ci seex si xaaju ci kanamam ne ko may ñu rek jox ñu ndigal dimbalu ñu tubaab yi moom ba lañ dafee génne ñii lay jël si dañ leen faat ñoom ñëpp wala ñun ñu faat ñu bañ jeex ñun waaye yow booy génn ba nee na sëñ bi ne leen sëñ basir ne leen sëñ bi ne leen inni lam arju sadiqan wala ma axaf aduwan wa zimaami bi yadillah ne leen lii ma ne soxlawu ma ci ab xarit ragalu ma ci am noonu te sama mbir ci loxo suñ borom képp la nekk te sëñ Bachir nee na boobu murid niñ toll néewuñu doole buñ so buñ songoo woon ak gaa yi dana metti waaye murid néewuñu doole boobu waaye suñ bi ne leen bu ci kenn dugg moom naka jekk liggéey bi bàyyi leen maag suñ borom ak lay wax mësa nangu kenn dugg ci moo tax Cheikh Sidé sax bi mu koy tàgg gis ngeen bi mu koy tagg ci xasida googu ab Cheikh Ahmadou Niamatun Awlaaha da koy ne sëñ bi daal xewal la bu suñu borom baaxee mbindeef yëpp wax nañ ne xasida googu indi woon am na ku ko doon jàng ci wetu sëñ bi di jàng bay di sëñ bi di déglu muy jàng di tari di tari ba mu agsee ci bay di ñu naan yarda isa jalasat umuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha nekkat moom lépp lu lu xew da koy gërëm day da ciy bég ndax day xam ne suñ borom a ko dogal wax nañ ne bi bi jàngee bay di woowu dafa wax ne alaana madaxanaa daane waa mi ngi mi ngi may doog a tàgg na nga xam ne li mu wax ci ne xéwlu suñu borom laa ak yooyu yëpp waxut dara waaye bi mu ne ku nangu lu suñ borom dogal la rek yëg na ne tàgg na ko léegi mooy ak jullit day day day day nangu dogal suñu borom tey day wakkilu ci moom kon loolu bind la bu bu buñ mën a jëlee ci ak dundam ci ne euh, gëm yàlla ak wakkilu ci moom lu am njëriñ la ci dundu jullit bi bokk na ci yi yiñ ci mën a jàngee ci ak mooy uluwul himma mooy yitte ju kawe njariñ bi nga xam ne am na ko ci ab jullit yitte ju kawe yitte ju kawe mooy lépp looy bëgg ci lu baax nga bëgg la ci féete kaw la ca gën a kawe rek xam ngeen ne sin bi léppam loolu la bi mu ñëwee dafa jël ba tam teg ko ci ne li mu bëgg a nekk mooy abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mënoon naa jaar rek yoon wi baaxoon a jaar nekkub sëriñ yii di fi yii di fi ay am ñu muy jàngal waaye def ko daa xool lu gën a kawe loolu mooy li mu bëgg a doon mooy a wa xadimu rasulihi daj ci lu ne loolu moo ko génne fii moo ko yóbbu Gabon moo ko teqaleek njabootam moo ko def lépp ba ni ko suñu borom mujjee baaxee ko mu am loolu noonu ba mu man a yëkkati loo xam ne nazaani min al walal baaxil xadim allamahum bi annani al abdul xadim ba ni ko suñ ni mu waxee ne suñu borom seppi na ko ci mbindee fi ber ko fële te it képp ku ci am tawfeex xamal na la ne la kii moom mooy al abdul xadim muy li ko taxoon jóg mu yitte ju kawe jooju ndax bu mu ñëwee yitteem ju kawe fépp li ciy fés gis ngeen loolu si Abdoulaye di nettali ci bi sëriñ bi gisee ak yonent bi salaa sallam te xam ngeen ne gis yonent salaa sallam dañuy wax ci tasawuf ne jullit bi bu gisee yonent salaa sallam jaxaran ci lu dul ay nelaw mooy seetaan mënatu koo yàqal ci dundam mucc na ci seetaan dootu ko yàqal waaye kon mënoon naa doy loolu ndax sëñ fi mu bokk moom lañ fi njëkk a dégg ku am loolu askan bi mu bokk te askan bu baax lañ ku ci am loolu ci moom lañ ko njëkk a dégg waaye bi mu gisee loolu doyu ko daa mel ne da ko yokk aw maa ni ko sëñ ba si di waxee si ñu nan mu wax yoon saasam ne ko li mu bëgg mooy bokk ci ñii ñii ànd ak moom wëpp muy ahlu badr ñu wax ko la ca la cay tegeen lii kat ku mas a toll nga toll mas na koo bëgg waaye bu ñu ko waxee li ko koy may da ciy génn ndax nangami natt lañ lay teg te boo delloo ginnaaw lu toll ne tarfatlan yi da ngay ñàkk li nga amoon lépp waaye ci tëju kawe yi mu ne moom de bind du róogi bay xam lu mu attan ak lu mu attanut waaye bu ñu ko mënee garanteer róogi moom jomam attan na ko bu ñu ko mënee garantir loolu moom jomam attan na loolu loolu mooy yitte ju kawe dëgg-dëgg mu siñeente ak yéen ci loolu mu dox ci loolu ci la daj lim daj lépp xam ngeen loolu koor gi la ci korite gi ci la génn dem Mbàkke Baari ci safar ga lañ ko fi jëlee yóbbu ko ci géej gi dellusiwaatu Tuubaa moom loolu keroog dañuy gisee coono yooyu yëpp mu daj ba suñ borom mujj ko fay nag mu ne addani yallaahu min ahli badri loolu mu ko mu signé woon yéen saa salaam mu mujj suñ borom defal ko ko ginnaaw bi mu ci doxee kon loolu lépp day fësal rek ne yitte ju kawe lu munta ñàkk ci jullit la sëriñ bi du bëgg lu tuuti lu ne rek la ca gën a kawe lay bëgg bi mu ñëwee dafa fekkoon ñuy wax alfadlu lil mutaqaddimi wala ma asaha ilmu man taqaddama ne daal rek ngëneel li ñu jiitu yóbbu nañ ko moom bi mu ñëwee mu ne déedéet ngëneel ci loxol yàlla képp la nekk yeglee ko benn génération bàyyi beneen jagleelu ko wenn xeet bàyyi weneen ci loxo suñu borom la ne te suñu borom amul démb ak tey ak suba moom temps ci ñun la am waaye suñu borom amul loolu mu mu mu xam ne mu xam ne ne moom li jullit bi war mooy ngëneel ci loxol yàlla nekk te ko sàkk mu jox la mu nekkoon ci tarixa xaadiriya xëy xëy bi mu gisee Rasul sallam daan daal mbir yi ni ñu ko gisee moom ñii nga xam ne ci Rasul sallam la ñuy jëlee moom foofu la bëgg a jëlee ci nit ñëpp maanaam ñii mënees na leen def ay nawle li ñuy baax baax moo tax bi mu ci jotee rek ci yeneen saa salaam mu wax ne sëriñ si kat ñi mu doon topp ñëpp ay weer lañ ak ay biddiw am nañu leer wax dëgg yàlla am nañ njëriñ waaye nag leeru biddiw ak ak ak weer bu ñu koy wax mooy jant bi dafa génnut waaye jant bi su xasee génn soxlaatuñ biddiw ak weer bi te nee na gis na jant bi te jant bi mooy yonent bi salaa salaam mu ne zahadani tuluu shamsin an nazar ila nujumi fi samaai wal jant bi génn ko tax na ba xoolatuma weer wi ak biddu bi ndax soxlaatuma leen daal di dox ci loolu nag wéy ci wéy ci ba ni ko suñu borom baaxee ñu baax ñi li ñu amoon ci seeni tarixa bopp mu am ko ndax xam ngeen tarixa yombut tarixa yi am ci ci ci alamul islam bi yëpp bëriwut fu mu daxawaat yi ci biir tarixa yi ñoo bëri maanaam benn tarixa boo ay woote ci biir loolu moo bëri waaye tarixa yi bëriwul yu néew a néew sax bëri na sax yu ñuy woowee ay tarixa yoo ay daawa lañ mu ne euh, ci loolu kon moom siñ bi ba suñ borom defal ko tarixaam muy kenn ku ñu njëkk xam ci nit ku ñuul ko am moo tax daana wax taalibe ne leen lan yetu la sanadu ko buum gi leen di jokkale yéen salaam du gudd ndax da ngeen naan man mii ne moom ne leen buum gi leen di jokkale yéen salaam du gudd ba fi mu ne nii man nañoo gis ñoo xam ne seen diggante ak yéen salaam ñaari nit fi dox ñaar maanaam mel ne sëñ Muntaxa ci sëñ Basiir la jëlee mu jëlee ci sëñ Tuubaa mu jëlee ci yéen bi salaam loolu moom gis te fi mu ne gis ci suñu gox yi yëpp ku am lu yées juróom-benn jàpp juróom-ñett nit yombut te sëñ bi la doon wax ne leen lan yatuwula sanadukum bu ngeen ci jàppee buum gi leen di jokkale gën sansam du du gudd taxawaay boobu mu amoon nag ci xam le ne ngëneel ci loxol suñu boroom la ne benn jamono moom moomuñ ko beneen ñàkk ko amul wenn xeel mu ko am weneen ñàkk ko loolu sëñ bi da koo jëf ba pare da cee fësal ñaari mbir yu am solo maanaam li ñuy ay rupture ay révolution yu am solo la ci def benn bi jëm ci wàllu xeet benn jëm ci wàllu jamono ndax bi jëm ci wàllu xeet <coughs> ah, ok kon ñu nuyu sëñ Hamza moom sëñ Sonia bu di ko siyaare di ko jox wàccuwaayam kon ñaari ñaari révolution yu am solo la Cheikh Khadim def ci jëf jooju mooy fësal na ci bu baax ne ngëneelu suñu borom amul wenn xeet ko moom bàyyi weneen ngëneelam it amul jenn jamono ju ko moom bàyyi jeneen mooy li mu wax masaalikul jinaan ne euh, fa laysa yujibu sawaadul jismi safaahatal fataa wa suu al fahmi ne der wu ñuul kat tekki wut xel mu gàtt wala ñàkk a mën a àgg fenn fi ci xam-xam xam ngeen ci beneen masaalikul jinaan bi sax waxaat na fa lu gën a kawe ne fa laysa yujibu sawaadul jismi adama fawzin bi azimi qismi nekk nekk nit ku ñuul kat teewu a am maqaama ak daraja mag ci suñ borom loolu sëñ bi dagg ci ay xalaat bu juunu bu nit ñi amoon ci ci ci wàllu der bu ñuul mu mu mu wane foofu ne mbir mi ngëneelu suñ borom loolu néew ci ay der bu ñuul ak der bu weex ak der bu xonq néew ci lool waaye mi nekk rek ci pas-pas ci yitte ak ci góorgóorlu mu defaat beneen révolution bu am sole ci wàllu temps mooy li mu wax ci Masaalikul Jinaan ne wala tuxassis fadla rabbil xadaala lisi taqaddumin faqat fatajahala is rubbama uri fatan muaxara maa raaba am man qablahu wa asura nekkat ngëneelu suñu borom bu ko jagleel rek ñi yàlla foog ni ñu mujj mënuñoo raw ñu jiit woon daane déedéet léeg-léeg sax mën ngaa gis ku bopp ci ñu mujj ñi am ci daraja ak maqaama loo xam ne ñi jiitu woon sax amuñu amuñu lu toll noonu loolu euh, lu am solo la ci sëñ bi def xam ngeen sëñ bi mooy kenn nit ku ñuul kuñ xam ku am tarixa boo xam ne moo ko moomal boppam bi mu ñëwee dafa fekkoon nit ku ñuul ñu di ko xeeb di ko xeeb di ko xeeb ba am ci ñu ñuul ñi ñoo xam ne dañoo dañoo mujj xeeb seen bopp jàpp ne dañoo xeebu ñoom maanaam nit xam nga nit da nga ko xeeb ba mujj mu jàpp ne daa xeeb loolu dafa mujjoon am ñun dal ci nit sëñ bi bi mu ñëwee moom mu dagg jéng yi dëkk mbir mi doxee weneen dox sant yoonu boppam wéy ba mujj ñëpp nangul ko mu nekk imaam ci biir jullit ñi ba ngeen di gis waa Madinal Munawwara jóge ca Xijaas ñëw fekk si ko njaareem di sàkku si ci moom ñaan moom mi nit ku ñu nekk fii ci Sénégal ay nit jóge ci wetu barab bi loo xam ne sax leen bu ngeen demee na ngeen ko wékk leen jëkk jox naaw la ba loolu yitte ju kawe moo ko may tubaab yii nga xam ne duñ ay jullit na ñëw di sàkku ci moom dimbal ba mu di leen dimbale ci lu dul benn du ñaar ba ci dévaluation boobu amoon mu joxe 500000 dimbale leen dimbale waa fii ndax xaalis bi waa fii koy jëriñoo ak moom noonu président France 50 000 la joxe bi siñ bi joxe 500000 te jiite France cinquante mille la te boobu boobu mi ngi fii ci Sénégal waa Mauritanie lim leen doon dimbali kenn xamul mu toll pes boobu mujjoon am si bi gaalu xaalis daf leen doon gaal waa ko Cheikh Sidé ba léegi gaal gi ngeen ñoom xottu gi mu ko diwoon ba mu fees mujj àgg foo xam ne ñëpp lañ koo jàppee imaam ci biir diine ji li muy doon doon bokk ci ñu mujj ñi doon nit ku ñuul jëfinam taxawaayam yitteem ju kawee tax na ñëpp jàppee ko imaam ñëpp jàppee ko kilifa ñëpp fonk tubaab bi ba ci seen loolu ñu taxawaloon conseil conseil xaw ma lan de affaires musulmanes boole woon nañ sëñ bi muy kilifay jullit ñi donte mosu caa dem mosu ko yittewu si Ahmad bin Badji ci kilifay tijaan yi gën a mag ci Mauritanie la bokkoon àggoon na ci wóolu sëñ bi donte du taalibe wóolu sëñ bi xam ne kii li muy woote dëgg la ba mu yónnee ci moom ne nee leen sëñ bi nee leen ko na ma nuyul yonent bi sallallahu alayhi na ma nuyul si Ahmad Tijaan radiyallahu anhu te buñ ma fayee na ma ko jotali sëñ bi teg ci ab diir yónnee fa ne leen nee leen ko yonent bi sallallahu mi ngi koy fay Cheikh Ahmad Tidiane yi ngi koy fay doomam Cheikh la Lamine nee na Cheikh Ahmad Bamba dañut ba ni mu génnee àdduna saa bu ci xel mi demee mu yéemu ne cey ngir xam na ne li ko suñu wax dëgg la keroog bi muy génn àdduna sëñ bi da cee def lu yéeme Ahmad doomam Cheikh Mouhamadou Lamine nee na dañoo xëy Cheikh Cheikh Ahmad Bamba ci guddi gi la génn àdduna suba teel lañu xëy ndaw yi sëñ Tuubaa ñëw indaale ak xasida ne sëñ bi leen yabal fekk si denc te yëgal yëgalaguñ ko kenn mu boole ci ak xasida wax ci wax yi doy waa ne Cheikh Ahmad bin Badi bi muy génn àdduna Seydina Jibril wàcc na ànd nag nangami malaaka yu bari ñu ñëw ngir teralee ko loolu ba gunge ruum gi yóbbu ko ci kaw daan te loolu mi ngi ko amee rek ci menn mbir moom Cheikh Ahmad bin Badi mooy li xusni zannihi bil abdil xadim yi kaana lahu bi kalamihi baaxil xadim nan li ko may rek mooy rafet jot bu mu rafet jot Sëñ Tuubaa sëñ bi boole ci xasida laqad jaa ruuxul li ahmada indallahi ma kaana yartaji lahu baana xayrun baabu laysa yurtaju ba xasida gi jeex ne loolu lépp mi ngi ko amee ci rafet gi rafet njort la ci sëñ Tuubaa radiallahu anhu wa arda kon loolu lépp ay bind la yu yuy fësal euh, sëñ bi euh, yitte ju kawe ji nga xamee ne amoon na ko te mu bokk ci bind yi nga xam ne jullit ñi dañ ko war a jànge ci wala watani taalibe xam ngeen Cheikh Fall keroog bi muy ñëw di jéblu ci sëñ bi ci Mbàkke Kajoor foofu la yitte sëñ bi njëkk feeñee bi mu ñëwee ci siñ bi wax ko wax ju rëy ne ko man de sëriñ bi ma doon wër bu ma ñëwoon ba gis ne fii mooy barabam te ma xam ne fii la sama yitte ak sama pas-pas dina ma may li ma bëgg ci moom ma am nee na sëñ bi ne ko man de yonent bi sama laay roy li may wut ci moom laa koy wut xam ngi ma xam ne asamaan sii mas na ko tiim benn bis suuf si mas na cee teg tànk benn bis loolu doy na ma sëkk ci li ma bëgg ci moom dinaa ko am Cheikh Fall xam ne kii moom mooy waa ji mu bàyyi mu jiitu mu toog ci ginnaawam mag ñoo ñu toppoon ci Sëñ Tuubaa loolu lañ ko toppoon da leen a jommal ci lépp ñu xam ne moo leen fopp ci lépp ñu bàyyi ko jiitu toppuñ ko toppee ko juddu toppee wuñ ko xam-xam toppee ko alal waaye dañ koo natt ci lépp gis ne moo leen ci raw ci pas-pas ci xam-xam ci gëm yàlla ci doyloo yàlla ci wéetal ko ñu xam ne kii mooy waaji ñu bàyyi ko mu jiitu ñu topp ci ginnaaw yitte ju kawe jooju nag dañ ko war di jàngee ci sëriñ feeñee ci loolu ma doon wax sànq bi ko yéen a feeñee ci daal Xudus wax mu ne ko bëggul lii li mu bëgg daal mooy bokk ci kuréel gi topp ci moom rek loolu yitte ju kawe fës na ci loolu te mënoon naa doyloo rek li gis saa salaam te xam ne ne askan wi ma am maa ko ci njëkk am bu ko doyloo woon mu doy sëkk nag bu ko doyloo woon mu doy sëkk kon bind a ngi foofu ci bépp jullit ci mu xam ne dunduk sëriñ bi war nañ cee jànge yitte ju kawe beneen bi ci topp mooy bind buñ mën a jëlee ci ak dundam ci wàllu mbaax ak rafet jikko loolu nag dama ciy jël rek seere soo xam ne ki ko seere du jullit moo may gënal sax may jël ab jullit wala koo xam ne ci waa kër sëriñ bi la bokk Antoine Le Sèvre benn tubaab la woon bu nekkoon njaareen boo xam ne dañ ko indi woon rek moom yitteem moo doon mu xam Cheikh Ahmadou Bamba bi li muy woote lan la dëgg-dëgg lan la dëgg-dëgg nga xam day sëñ Basiru ne léeg-léeg sax bu ñëw day bett sëñ di ko bëgg a bëgg koo bett ba xam na ci fu mu koy fekk nee na léeg-léeg am na bis boo xam bi muy ñëw daa am ku mu àndal kooku di dajj sàkkee di muy dugg nee na àggoon nañ ci ñoom taalibé yi ñenn ci taalibé yi ne sëñ bi ñaanal yàlla mu jëlee fi kii ndax ni mu lay def neexuñu nee na sëñ bi muuñ ne leen kii suñ borom daf maa xamal ne dafa ñëw rek ngir setal sama mbir nee nañ mu jaaxal leen ndax kii ni mu melee ba pare di setal mbiram waaye bi mu demee ba noppi ba bind rapport bi bi mu xam ci sëñ bi rapport bu gudd la am na fi lu ñëw ci téere Omar ba boobu bi mu génnee rapport bi lañ xam ne lii la sëñ bi doon wax ci biir rapport la ciy wax ne Cheikh Ahmadou Bamba mii nag li ne ci moom ci jikkoy rafet ak xol bu sell ak yeneen ñépp aw yiw moo xam ab noonam wala xaritam àgg na ci foo xam ne mbooleen ku ñuy tudd ci nit ñi jiitu woon buñ ko ci méngale moom mu jiitu ko ci moom mi daane ñi ko gën a réere gën a gën a réer ci nit ñi mooy ñi nga xam ne mas nañ koo tumaal benn bis ne bëggoon na daray nguur wala daray àddina lii ki ko wax du jullit kon loolu mooy wala ne jikko ju rafet jikko ju rafet jullit war na koo fonk saa su ne xam ngeen sëñ bi wax na ne bi mu nekkee Gabon am na kenn ku nekkaloon ci tubaab bi ci njiit yi nekkoon foofu koo xam ne mbaax gi xam ci sëñ bi taxoon na bu buy dem mission waa këram sëñ bi la leen koo xam ne da nga ne dafa def dara ba nga jàpp ko indi ko bi ba pare booy dem di ko dénk sa waaga loolu mi ngi ci mi nan loolu lépp di wane ne euh, mbaax gi suñ borom da koo bindaale mbaax da koo bindaale xammee wuti ku ku ku ko bëgg ku ko bëggut bokk na ci bind yi man a jëlee ci dunduk sëriñ bi it mooy ak nite ak dégg sa jamono loolu dafa fees dell ci dunduk Seex Xaadim radiyallaahu anhu nite maanaam xam jamono ji lim laaj nga def loolu sëñ bi bi mu ñëwee fekk na ay jàmbaar yu mag jaar fi xeexal lislaam ba sonn bi mu ñëwee daanaka mën nga ne jullit ñi ñaari xaaj lañ woon yi gën fes ci kilifa yi ñu gëm ne dañoo war a xeexal tubaab yi jël seen gànnaay ñooñu tubaab yi faagaagal nañ leen ñëpp ndax doole tolla wut ak ñeneen gis ne biñ màndaxee diggante ceddo yi ak tubaab bi jàpp nañ ne tubaab yi tane ndax lu métti rek bàyyi nañ leen ñu jullee def yëfi fa ñu maslaa ñoom ñooñu ñoo ci gën a bëri xëy mën naa benn benn yu génn ci loolu sëñ bi moom bàyyi ñaari yoon yëpp jëlum gànnaay waaye maslaa wut ak tubaab yi xàll yoonu boppam mooy bi mu gis ni tubaab yi jiitu nañ ci ngànnaay dafa dem jiitu leen ci xol yi ak ci xel yi mooy ci wàllu xam-xam xam ne loolu beneen révolu beneen euh, beneen beneen beneen résistance la boo xam ne bu pacifique la bu jël ngànnaay waaye buñ demee ba pënd bi wuri rek mooy ëpp le résultat moo tax mu ne inni ujaahidu bil ulumi wa bittuqa abdan xadiman wal muhayminu shahida ndax xamoon na ne mbir yi foofu lay mujj moo tax bi bi dem nee bërit rek dafa samp ay daara samp ay nit seexal ay nit tasaar leen ci réew mooy waral bi ñu ko yóbboo ci géej gi ba foog ne mbiri jeex na fekk gars yi ñu ngi liggéey ci suuf bu ñëwee day mel ne benn acier buñ teg ci biir weñ rek bu yëkkatee lépp da koy topp moo tax bu ñu ñëwee bi ñu ko indee mi toll noo xam tubaab da leen jaaxalaat ñu daal di gaaw dalaat ci kawam kon loolu it bind la boo xam ne nit ki war naa xam ne jamono ju ne rek rawatina ku bëgg a xeex say àq ak sa yelleef ak yooyu maanaam résistance daal mën naa am tey violence du am loolu mën naa ne te Sëñ Tuubaa jàngale na ci aw yoonu bu baax a baax danañ jàngee ci ak dundam mën a jéggale ak di suuxat jàmm te yàlla rek tax nag te yàlla rek tax doo jéggale ngir da ngaa amul pexe doo jéggale ngir ay calcul la loolu waaye da ngay jéggale te yàlla rek tax xam ngeen suñ borom suñ bi wax na ci ay mbindam ne keroog bi mu génnee Mbàkke Baari suñ borom da ko boole ci ahlu badr ne leen nañ ànd ak moom te saa bu ko noonu sonalee ba ñu war a réagir nañ ko def buñ ci waree dugg waaye sëñ bi dem na ba ñëw mës ta jëfandikoo ahlu badr gis nga da koy junj sax fa woon sa am ri li mu xeexam li ma ahlu badr bilam ci daay jëfandikoo loolu mooy ku bëgg jàmm dëgg-dëgg am ngànnaay te nangoo ko jëfandikoo mën a jéggale lool tey jéggal te yàlla rek tax gis ngeen lim daj nga xam ne bi ñu ko yóbboo daat nee na tey sama kër ya wéet na tasaare nañ maag sama jabar bi teqale nañ ñu te lan dong ma ko yóbbee mooy li may liggéey yoon France ba xusuuri xalat wal ahlu an ni tafarraqat li ma xillasi anhu madiha xasiru coono yu métier mu daj ko xam nga sëñ Tuubaa du jàmbat ku dem bay wax tubaab ne leen kat tooñ ngeen jaamu yàlla bi tooñ ngeen ko tooñ ngeen ko ci loo xam ne tegu leen ko benn dëgg tooñ ngeen koo xam ne du fayu génn ngeen ko digg bëccëg ci njabootam mu daj ci coono yu dul jeex te tegu leen ko fenn zalamtumul abd allazi laa yantaqib li nafsihi mujahidan lil muntaqib axrajtumuhu min diyaarihi bila xaqin wa jaahada waxaa xaasaahul balaa diggante boobu daj na ci lu ne ci ay mettit ak i sax daan leen waaye loolu lépp bi ma amee it li wajhi man anhu afa ankum afa jéggal na leen ngir yàlla ngir jëm yàlla topp leen dara nee na li li fi des daal mooy mi ngi ñaan suñu borom rek mu defal ko li mu bëgg waaye jéggal na leen te yàlla rek tax waxoon na ne sax tolloon na ci mbindam foo xam ne suñu borom xamal na ko ne ko ndax nee na bi xasaay di jihaad yi doon bind di moolu na ci suñu borom xamal ne ko boo bawul mi kuy ab yéefar tamit ci kaw suuf bu tuubu dina alko mu jéggal leen bàyyi muy law anna nii lam atruk muy euh, law anna nii lam atrukil kitaaba mu biha zawil isaaba lamaata bil wabaayi kullu kaafiri in lam yatubu li ilaahi lgaafiri lakin afawtu an jamii nnaasi li wajhi rabbin muhlikin fa naasi nee na suñ borom mujj na ma ahmadu boo bawul mbind mi kuy ab yéefar bu tuubu danaa ko mu ne kon jéggal na leen te yàlla tax loolu ci bind yi wala jëlee ci mbindu sëñ bi la ci mën a jéggale moo tax fu ne dafay seeral suñu borom ne ko jéggal naa leen te yàlla tax wachat bi afoy anil balaaya afawtu anil aadayi turran li wajhi man nafaahum li gayri samaran lastu alfahu afawtu anil aadayi ma safrikal kali jéggal naa leen ak xol bu sedd guy jéggal naa leen te yàlla rek tax fu muy wax jéggal naa leen sax faw da ci boole suñu borom xam ne yàllaa tax mu jéggale loolu bind la kon bu am solo moo tax gis ngeen lim bindoon bi mu demee ba ñëw ne ku gis lii kat na xam ne ki ko bind jéggal na képp ku ko mas a tooñ te moom du ñaan yàlla ab tooñkat mu ngi ñaan suñu borom mu jëggal mboolem ay taalibeem di xamal ñëppit ne lim yéene taalibeem yi moom la yéene mbooleem jullit ñëpp loolu suñu tubaab bind na ko loolu bëgg jàmm foofu la ma ku ma tooñoon jëggal naa la du ma ñaan yàlla sama waa kër li ma leen yéene moom laa yéene mbooleem jullit ñëpp loolu bind gi ci ci ci ne kon jullit ñëpp ay mbokk lañ yéene yow jullit ñëpp it ñëpp ko war def waaye rawatina ñu bokk ci waa kër sëriñ bi yéen a ñëpp jàmm ji amul fu mu yem waxtu waa ngi sori waaye amul fu mu yem gis ngeen daarul ma naan lim doon métti métti bi ñuy ñëw di ko jàpp si mi ngi génn xasida euh, rabbi bi maaye soxla di wax ci biir euh, yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al wara yaa haadiyan la yow suñu borom yow mi borom nguur gu mat gi yow mi nga xam ne weesu nga fooy fooy fayantoo maa ngi lay ñaan nga yërëm mboolem bi def yëpp loolu euh, bëgg jàmm foofu la mën a yem waaye nag lim doon bëgg-bëgg jàmm yi beneen bind ko bu ñu mën a jot ci ak dundam mooy am fulla Sëñ Tuubaa ku am fulla la woon ci boppam lim doon lewet lewet mën a nëbb mer du topp kenn teewut ko ñaaj li mu nekk nekk ci biir liggéey fulla ji jamono sa saa su ne day feeñ moo tax Sëñ Basiru nett na ne ba mu nekkee Gabon am na benn waaju fa nekkoon doon ko fontoo di ko dëngee am ku ñëw ci moom sëñ bi ne ko daal damaa bëggoon kii nga xool noo maslaak moom rek ndax ni mu lay def daal gënut ma bëggoon rek nga maslaak moom nee na sëñ bi ne ko soxlawu ma maslaak moom ndax jaat bi ñu koy def ñu ngi ko yett te leen mu noppi ne ko laa yaxtaaju ilaa musaalaxatihi li annahu xaruba tamaamu naqsi taabutihi allazi yuqbaru bihi waa ji nee ay fan yu néew lañ ci teg waaja waaja feebar faatu faatu sax dafa dee dee ci saasi nee na mu ñëw ci sëñ bi ne ko man daal sa mbir yéem na ma ndax waa ji ma doon wax ñu ngi noonu ñu def ci ak keesam néew jëmee ko Dakar faatu na yamqutuhu yamqutuhu sultaanu wan nasaara min yow mi fii taabuuti xabrin saara amut sikk sëñ Tuubaa ku ko ku ko xëyi tooñ bu yororee da nga koy gis amut sikk gis ngeen bi muy dem gànnaar ci fulla ji Merlin mi nekkoon gouverneur général xam ngeen sëñ bi woo nañ ko ay yoon génn ndax amul amul ndigal Cheikh naa wul da benn naa bi mandal nee na bi mu jubee Merlin mu nuyu ko moom Cheikh naa mooy Cheikh Sidi yebaloon nee na bi ko sëñ bi jubee bëggoon nuyu Merlin dane na du nuyu sëñ bi moo xam bi mu ko nuyuwut ah moo xam di sëñ bi sëñ Tuubaa ko nuyuwut yaa ko yëg waaye nee na bi mu ko nuyuwut seex naa neen bi mu ko nuyuwut sëñ bi dafa wax ci kaw ne alhamdulilahi alladi mana hada alkafira min an yamassa jildi jildu min an yamassa min an alhamdulilahi alladi mana hada alkafira min an yamassa jildi jilduhu ne sant naa yàlla mi nga xam ne dox na sama diggante ak yéefar bii ba yaramam laalu sama yaram ca kaw nen la ko wax cheikh naa ne bi ñu génnee sëñ bi da koy tooñ naa ko naa laxat baa laqta fi lixtisaar naa ko cheikh naa nag ni nga wàccee sa bopp ëpp na nag yii kat ëpp na waaw cheikh naa foofu la toll moo tax loolu di wane ne fulla ji sëñ Tuubaa li muy baax baax li muy bëri bëri yem ne fulla ji moom kenn du ko ñaaj loolu ci bind yi ñu war a jëlee ci moom ci la bokk euh, ma njëkkanteeg waxtu tuuti rek bokk na ci bind yi ñu ci mën a jëlit mooy sax ci say gëm-gëm ay principe sax ci sëñ Tuubaa maanaam li mu déparé woon ba ni mu fi jógee mus sa soppi ba mu fi nekkee jamonoy Simeon Seli ba ni Simeon Seli jógee ba ba ni fi jógee moom mës ta soppi gis ngeen jamonoy Simeon Seli xam ngeen xasida xaalu safi moom li ko indi woon mooy ay nit yu mu romboon rek dëkk bu Simeon Seli demoon di fa gane muy dem di jàngi ànd ak maam Thierno bokk ab téeréem bi mu leen rombee nee na benn waaye xool ko am kum ne xanaa kii mooy seen mbokk mu wéra di mi may dégg nee na kooku mbokkum sëñ bi kooku nag ah moom daal nii la mel daal ne lañ ko wax sëñ bi ki ku la romb rek bokkub téeram bi jànge nga ne kii wérut la binda xasida googu xaalu safihun yu safi anhu basari wa rahbati ba xasida gi ba ca mujj ba wax na alhamdulilahi is kaanat safahatuna idaamatal wirdi wal azkari wal fikari su dee ndof mooy sax ci wird sax ci tudd yàlla sax ci kennal suñu borom ak di ko xalaat màggal bu dee loolu mooy ak ndof sant naa yàlla ci ndof gi wax ne damaa dof loolu mu sax ci rek nga xam ne xam-xam dong moo ko yitteel li nit ñi nekk yitteelu ko bi fi si moom seen nekk Samba Lawbe Fall àggoon na ci jarbaatu Lat Joor sàkku ci moom mu ñëw féete ko fi si moom seen féete Lat Joor mu jox ko ngànt ne ko doomi jullit yi ñëw di sàkku si xam sama ngor mooy ma ma ma baleen fi da ko wax loolu rafetal rek ne ko sama ngor mooy ma daal ma baleen di ñëw di di di di ànd ak yow sax ci loolu noonu moo wéy bi fi si ñu wax ko ne ko lañ dem ci Lat mu jox la place bi mu ko joxoon mu joxe ngànt ne leen man laa azabu ilal umaraay wala argabu fi fi dunyaahum wala atlubul karaamata illa min allaahi rabbil arbab ne leen man du ma dem ci buur yi seen mbir yitteelu ma te teraagal suñu borom dong laa koy sàkko mooy li muy wax xaalu li yartal ni abwaabi salaatin taxus jawaari si toog ni kulla maa xiin fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wala su raadiya gayri l ilmi wa diini wala su abju wala axsa siwa maliki li annahu jalla yugnii nii wa yunjii nii nee nee nañ ma kat naa jël jëm ci buur yi waaye ma ne leen nag man yàlla doy na ma da doyloo naa ko xooluma lu dul suñu borom wutuma lu dul moom ba waxta mujj ga euh, nu mu koy waxee sax euh, in kaana aybiya zuhdul fi xutaamihum fa zaaka aybun nafisun laysa yuxzini su fekkee lii ma wan ginnaaw poñatum àdduna mii moo tax ñu di ma sikkal sikk soosu man bëgg naa ko amul sikk bëgg naa ko daal euh, loolu mooy rek ni sëriñ bi doxee nga xam ne bi mu ne bërit àdduna dafa daw wut si ko mu wan ko ginnaaw mu dox ba yàgg àdduna kër kër newaat cëpp ci kanam moon ko ginnaaw bañ ko faale muy li muy wax ci mun a wéru surul aqbalati dunia ilaya qablu wa baaduha fa zala anil kablu moo tax gis ngeen ci yaareem bi Cheikh Fall dajeeg sëñ Fallu ci kër sëñ mag radiyallahu anhu nee na sëñ mag bi jox leen ndab dugg ci biir ne leen nañ xewlu Cheikh Fall nanguwutu xewlu ne sëñ Fallu xewlu ba noppi bi sëñ mag bi génnaatee de laata muy génn bi sëñ Fall di xewlu mu xool Cheikh ne ko joxuñ ko sëñ bi ko moom yéen ñi ko xamoon démb ci Mbàkke Kajoor ak tey ndax am na lu sopp ci moom nee na sarafaal ne tekk ba yàgg mu ne ko su fekkee am na lu sopp ci moom de xanaa karaw gi la bu njëkk da ko daan bàyyi mu sëq te léegi da koy wat ne ko loolu daal laa xam ci lu moom sëñ Fall nee na bi ñuy wax loolu la sëñ mag bi génn ñëw daal ne xewlu ngeen mu ne Cheikh Fall nee na sëñ Fall ne ko nee naa naa xewlu ba noppi daal sëñ bi ci baatin bi mu ne ko ca Ibra moom de Mbàkke Kajoor ba léegi dara soppiku ci moom loolu fës na ci bu baax sëriñ bi euh, ne naka jekk ci loolu la sax mës sa soppi ku ñu ko xam ñëpp loolu la wax mës sa soppi mës kon bind ngi ci ne nit ki lim xool ba xam ne lii mooy dëgg mooy lu baax dara war ko cee jóge bu juróom wéet moom képp la bu juróom wéet moom képp it da cee war a sax ngir ñu njëkkanteeg waxtu wi ay bind ngi nii yoo xam ne mën nañ ko jëlee ci jëflante bi war a am diggante nit ak ay mbokkam mooy ñàkk a xeeb say mbokk li suñ boo waxoon ne nit ku ne mën naa ñett mbokkam waaye mun leen ñett nit mën naa ëpp ay mbokkam waaye mën naa ëppule ay waaye mun leen ëpp mën naa gën ay mbokkam waaye mënu leen a génn mën naa raw ay mbokkam waaye su àndut ak ñoom aw doxinam du rafet moo tax gis ngeen kooku ñëwoon ci moom ku sant Mbàkke ne ko ñun dañoo jaaxle ndax daañu dañ ne yow amoo mbokk te ñun yow doog lañ am sëñ bi joxoñ ko ne ko bu ma ko waxati gisoo kenn ko ci mbokk kooku nag képp ku ñu naan sama mbokk la ku ne lam baax la képp lañ bokk ma ak moom bu ngeen xoolee ci bataaxal yi muy bindante ñi mbokkal da ciy fësal lool mbokk gi mu amante ak ñoom ku mel ne suñ moo jaara ilaykum ayyuha shaqiq a cheikh Mouhamad Diarra yow mi ma bokkal ñaari waajur alamu ibrahim alamu cheikh ibrahim muy sëñ Mbàkke Kajoor yab na amati wa xaali yow sama doomi nijaay yow sama sama doomi bàjjen sëñ Mbàkke Buso ila axihi allazi lam yuxaalifu fi sigarihi wala fi kibaarihi wala fi kibarihi ibrahima ibni walidi lii maa ngi ko bind sama mbokk mi nga xam ne ci ndawam ak magam mësa juwee ak man ibrahima mi nga xam ne ñoo bokk wenn waajur woo góor muy maam Cerno gis ngeen siñ bu soobe ay ayoha cheikh wal xill wal xaal yow sama xarit sama nijaay sama sama sëriñ ngir jàng na ci moom gis ngeen bi muy bind am na ñu bind yaa ixwaani wa asaari yooyu yëpp day wane ne sëñ bi comme ci bind ñi ñi may wax ñëpp doo ci gis kenn ko bind ab bataaxal sëñ bi moom ba di ko tudd mbokk gi ndax ñoom ab sëriñ nañ ko jàpp xam nañ ne ko sëñ ba nangu nañ ko moom moo leen bëgg a wan mbokk gi dafay nekkoon laata lii te dañ ko war a sàmm wéer ko kon loolu bind ngi ci ci ne nit lu mu mën a mel ci xam-xam ci alal ci daraja ci barke ay mbokkam da leen war a fonk te waru leen a xet loolu bind la boo xam ne dañ ko war a dañ ko war a bàyyi xel euh, na ci bind yiñ ci mën a jël ba léegi it lii moom naa ko tëb rek nga xam naa ne waxtu kii na bii mooy ñi nga xam ne ay sëriñ lañ te duñ suñuy sëriñ nuñ leen war a jàppe sëriñ yi ci lislaam te duñ suñuy sëriñ loolu suñ bi jàngale ci ne ni ñu leen war dox ak ñoom rek bil i'tiqaadi taam wa wax zanni wa adamil i'tiraad ñett yooyu ñu gëm leen maanaam dëggal leen rafet jot ci ñoom te bañ leen a diingat bañ leen a diingat dootu duñ suñuy sëriñ moo tax gis ngeen a masaalikul jinaan muy muy wax fakkul wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan walan yaxida sawa un intama ilal jilaani aw li ahmad tijani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi ne wird yëpp bu ci nit ki jàpp te tënku ci mu ngi ko jëmee suñu borom sëriñ sëpp ci dëgg lañ ne ci lu baax lañ ne ci lu baax lañ doon woote yemut ci loolu moom sëñ bi waaye dafa mujj sax wax taalibe mi ne leen fu ngeen gis ak ñaan wala wird bu jógee ci nit ku baax loolu ci Sëñ Tuubaa du ma ne ci moom dong nga koy déggee waaye néewaa na am na ci tariixa yoo xam ne sax boo ci nekkee bi yenn yi dañ la koy terefar te loolu luñ mën a la layal la ñu xam la waaye moom daa wax sax ne leen wa amma ahzabul aqtaab wa naawaatu saalihin fa azintu lakum bi isticmaali bi fa azintu lakum jamian fi amali bi kulli ma tayassara bi kulli ma tayassara lakum minhu minha haysu moom ñaar yi jóge ci sëriñ si ak seen ahzaab yi lu ngeen ci mën a jëfandikoo may naa leen ngeen jëfandikoo loolu mooy dëgg-dëgg ubbi ko dëgg-dëgg yi lislaam te bàyyi parparloo ci biir lislaam bi yemul foofu wird yëpp da ko doon jëfandikoo ba mujj wax ne ñi yori tarixa ñëpp gërëm nañ ko radiya anni sibtuhu aljilaani alayhi ridwaanu allazi alaani radiya anni sibtuhu abul xasan alayhi ridwaanu xalidul xasan radiya anni sibtuhu tijaani alayhi ridwaanu mubinil jaani ne ñett ñooñu gërëm nañ ko ñooñu bu ñu ko gërëm mooy ñi yor tarixa ñëpp gërëm nañ ko ne ñi suñ borom gërëm ñëpp gërëm nañ ko ne xulafa al arbaa gërëm nañ ko radiya anni xulafa al arbaa xustu ridal muqarrabin al mutbaa ne suñ borom waa xulafa arba yi rashid gërëm nañ ko ñi suñ borom tànn ñëpp gërëm nañ ko moo tax loolu bind la boo xam ne war nañ koo jëlee ci sëñ bi ci nekkat da ngay am sab sëriñ jàpp ko waaye sëriñ sëpp nga nangu leen te bañ leen diingat bind bi it mooy suñu diggante ak suñu mbokki jullit yépp rek ñi nga xam ne bokkuñu ak ñoom fu ñu fu ñu féete li ñu war a jàpp rek mooy li suñ boo xam ne al muminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanat jullit ñëpp ñu doon ñu ngi jigéen ñi samay mbokk lañ wax ñaan suñu borom ne ko na ko may mu mu mu yéene ñëpp aw yiw wa axrina bi xubbi kulli muslimin wa najjina min sharri kulli mujrimin nag ma def ma bëgg jullit ñëpp yéggi foofu sax ba sol bu avocat ci kanam suñu borom bi défendre jullit ñi wa najjihim wa aafihim wal tus bihim wala tuwaaxisum bi kusri zanbihim ba bay di jeex ñii kat yëpp bu leen topp fa innahum wa in asawka yaa ahad li xaflatin lam yushriku bika ahad bu ñu la mooyee it seen xol yi moom yow képp lañ gëm xam nañu yaay yàlla yaa fi bu ñu la mooyee it dañoo topp seen bakkan rek kon jéggal leen ne ko nag sa yërmande gii boo leen ko joxee du la wàññi dara te ñoom buñ ci jotut seen dara lu baax kon maa ngi la ñaan nga jéggal leen fala tuwaaxisum bi maa laa yanqusuk wala humu habil lazi laa yanfau àgg ci wax suñu borom ne ko lay laysa li ummati nabi siwaaka yaa waaxidan ak sa tali jadwaaka ne ko kat xeetu yoon sansan bii amuñu kenn ku dul ma waxin bi muy wax ak suñu borom sax da ngay xam ne dafa am tawféex maanaam yow mi nga xam ne kat sa xéwal li bari na ci man ba mun ma koo lim maa ngi lay wax na nga gestu xeet yéen saa sallam gestu leen ndax amuñu ko dul yow suñ tubaa ni muy ñaanee suñ borom sax ndimbal da ci am da ngay xam ne ñaan gi buy noppi moom ñaan gi nangu ndax fu mu ko yaaru shakawtu umuri wa zanbil azim li rabbil xadir al gafur rahim inni aqulu wa inni al yawma zu xajali min kasrati zanbi wal afati wal wajali bari na bari na yum ciy wax fa inni la imun asirul hawa wa asin walakin ilahi halim ba buy wax ak yonent sallam sax yaa sayidi yaa buxyati yaa yaa junnati haasi mubayaatun ila yawmi liqa yow sama sopp bi yow sama ki ma sopp maa ngi maa lii kat ab jaayante la maa ngi ko jaayante ak yow ba bañ yi la jëm ak yow nga xam ne fi muy fi buy wax sax da ngay xam ne kii daa am tawfeex ci anam gi muy waxee bi ma ciy mujjee rek mooy ay bind yoo xam ne nag kilifa kilifa war na koo am ci digganteem ak ñim yilif bi ci jiitu mooy kilifa gu ne bu jiilifee ak njabootam war naa am seen yërmande loolu danañ ko jàngee ci dunduk sëñ bi yaa rabbi jaalil muridina maa ma xisnika alxasin wa shamla jamaa suñ borom murid yi maa ngi lay ñaan nga dajale leen nga boole leen ñu nekk benn aar leen te buñ teqali ko yërëm leen bu ñu amee ay jafe-jafe lu mu ci man da ko ci def gis ngeen ba mu nekkee ca Gabon suñ Lampagne set ak euh, suñ Bacares ñaar lañ am na fu ñu leen yóbboon Luango ñu bind bataaxal yoo nekk suñ boobu suñ baa ngi Gabon di ko wax ne ko tubaab yi dañoo indi fii wax ay wax daal di ko wax seen mbir suñ bi nee na bi ma jotee seen bataaxal rek aslamat alaya dunia wa takaddara waxti shafaqatan lahuma nee na àdduna dafa lëndëm këriis ci man ma nekkatuma ci jàmm daal ndax euh, yërëm naa leen ndax xam naa tubaab bi bu baax a baax te xam naa ne mën nañ leen def lu tax seen ngëm ak seen pas-pas seen borom am lu ci sëkk nee na dafa maa fekk may bind ak xasida ci saasi damaa soppi ni ma doon bindee ñaanal leen yaa xayra gaafirin zunuban makka wa xayra xaadirin asiran fakka ufkuk riqaabal muslimina fakka wa kuffa anhum maa yajuru shakka yow miy jéggale bakkaar yow miy tinki jéngi tinkil jéngi jullit ñi te musal leen ci lépp lu mën a indi jiixi jaaxa ci pas bi ñu war a am seen diggante ak loolu kilifa diine daa am boobu responsabilité bu ko yëgee ak bu ko yëgut yërmande ji mu war a am ci ñi nga xam ne da leen a da leen da leen a jabote ak nosu sëñ Tuubaa jàngale na ci lu bare baree bare dëkk yi mu sos jëwriñ yi mu doon sanc yi mu doon yi mu doon samp maam Cheikh Anta Fee Daaru Salaam sëñ Mbàkke Buso bi muy dem Mbàkke Baali mu bàyyi ko Tuubaa borom daaru moo ti yor daaray xam-xam ji sëñ Daa Abdourahmaan yor daaray alxuraan ji bi muy dem ci géej gi mu jël jaboot gi teg ko ci loxol maam Cerno yooyu nosu googu noonu loolu bind la bu ñu war a jàngee ci sëñ bi li bëgg mu leer ci moom boo xoolee Matlabul Fawzayni nga xam ne kii lim bëgg leer na ci moom maanaam mashron bi am na ruya vision bu leer am na manhaj muy méthode bi mu koy jaar xam na ko am na waax yi tamit ci lim soxla ngir mën a ngir a jëf loolu waaye fonk diisoo bokk na ci li kilifa yi war a jàngee ci dunduk sëriñ bi mooy fonk diisoo ak ñi nga yëlif tontu yàlla ni lif li suñ bàkk bu di wax naan képp ku nee nañ képp ku bëri li muy diisoo lam yaadam inda sawaabi maadihan wa inda alxata i angira képp koo xam day diisoo bëri lu muy diisoo bu jëfee bu dee noonu la nit ñi danañ ko tàgg bu juumee danañ ko jéggal ndax koy diisoo la sëñ Tuubaa gis ngeen ne école ba mu yox franco mouride sax bi ñu ko bëggee ubbi njaareem dafa dajale mag ñi laaj leen seen xalaat ci tënk rek xalaat bi sëñ Mbàkke Buso lañ mujj jël bi ne nangu nañ ñu ubbi fi daara ji waaye ñoom ñu jàngale ñun ñu tubaab tubaab bi di jàngale ñun ñu wéy di loolu ubbi woon mooy ku yilif ak njaboot war nga di leen àttu saa yoo ko jaree saa boo leen waree wax dëgg nga yaar ci digg bi nag xam ngeen ne Sëñ Tuubaa déclaration bi mu njëkk a def Mbàkke Baari fit moo ko ko may ndax ñi fi nekkoon ñëpp xam-xam moo leen fi indi woon mu xëy xëy ne képp ku fi xam-xam képp indi woon man ngaa yeewi ko ñi ëpp dañoo dem ñun ñoo fa des suñ ba Basiir nee na bi mu nekkee fii ci Touba mas naa yónnee Daaru Salaam ku ñuy wax Sëñ Ablaye ne ko boo demee neel ku fi àdduna képp indi mën naa dem ku fi àllaaxira képp indi mën naa dem ku fi àdduna ak àlaaxira indi mën ngaa def ku fi yàlla képp indi nag mën ngaa toog loolu ku ko waxoon tey ji bu subaa doo gis kenn ndax mbooloo mi kenn nekk fi ak bind nekk fi ñoo ci moom ci dëgg rek lay ànd ak ñoom loolu maanaam di wax lu leer bu ñu ko waree wax loolu bind la ci kilifa yi war a jàngee ci Cheikh ba ci Cheikh Khadim gis ngeen rakki lab jot yoo jébaloon biram ko bi mu jébaloo ci moom da ko ne la nga jëlee woon ci xarab sàmm saajo da ngay dem delloo lépp ma boo ko def du ma ko nangu ak li ay xëccoo kii yëf yëfaan ba lab jot sax nekkoon na ci dal ci mujj bi mu am sens dalu ci kaw yooyu yëpp day wane ne naka jekk li suñ bàkk bu soo waxoon ne wallahi maa ahidna xattu yuqiru ala al manakiri euh, yuqiru ala al baatili aw yaskutu ala al manakir laa xaaifan wala gaafilan ne suñ tubaa ñun ñu ko xamul mosuñu koo gis mu mu nangu ab safar wala mu nopp ci naka su dul du ci noppi ngir ki ko def da koo jege du ci noppi ngir liñ jëf dafa tuuti saa ñu defee naka su dul ci saas day àtt suñu mel la mi mi ngi nettali ne am na bis ci njaareem waa barsàq yi toog am benn soxna bu leen seet si fi sëñ baa ngi leen dégg ñu ngi ci am soriwuñ ci lool soxna sa di jëw di jëw di jëw di jëw ba yàgg rek sëñ bi gëdd leen nee na bi mu tàmbalee jëw moom waa barsàq yi dañu dañu waxatuñ ndax xam nañ ne sëñ bi da koy bañ waaye nee na sëñ bi dafa ju gëdd leen rek ñu daw ñoom ñëpp ñëpp daw nee na sëñ bi basan gi ndaw sa toogoon da ko indilul taal ko ci keroog ne basan gi mu toogoon nañ ko lakk loolu lu kawe la ci jëw jëw maanaam jëw niñ ko tuutalee léegi ak moom mu àgg ko foofu basan gi mu commencé la ko taal loolu ci bind yi ñu war a jëlee ci loolu la bokk bokk na ci bind yi ñu ci war a jëlee mooy kilifa diine ak kilifa aada ni ñu war a jëflanteel mooy noonu suñ bi waxoon rek ni mu doon jëflante ñoom mooy di leen laabire di leen wax dëgg di séq ak ñoom jàmm ngeen jaboot gi yéen a ko séq waaye saa bu leen waree laabiré mu laabiré leen bu leen bu leen di laabiré mu leen fàttali leen fi baax ak leen fàttali seen ëllëg ku xool bataaxal boobu mu yónnee woon ku mel ni Ahmadou Makhourédia wala bi mu yónnee woon Sàmbalaw bi yaay loolu fees na ci lool lool lool bokk na ci bind yi ñu ci war a jëlee mooy kilifa kilifa njaboot kilifa ak njabootam rek nu mu war a jëflante ak ñoom mooy li sëñ bi bataaxal bu mu bindoon yónnee ko mag ñëpp la bind ne nañ ko jàngal ndax da ko bëggoon a jàngal fekk ko fi ne nañ soxna Fatou Diop gis ngeen sëñ ma Lamine nee na bind na juróomi kaamil waa barsax yi daanaka ñoom ñëpp noonu loolu lépp di wane daana yittewoo lool njaboot gi ñu di leen jàngal ak ñu am xam-xam ñu xam seen xam-xamu kon su ma bëggee tëj rek ci juróomi minute mën nañoo wax ne rek euh, bind yi ëpp solo daal yi ñu mën a jàngee ci dunduk sëñ bi mooy jullit ñi war nañoo fonk mbokk jullit gi dox seen diggante war nañ ko fonk war nañ koo bàyyi xel xam ne euh, suñ borom a leen ko boole te lu ñu war a sàmm la jullit ñëpp ay mbokk lañ ndax loolu suñ tubaab di wax naan xot ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarxamil xalxa yaa man jaddahum badaa nga xam ne day jéggi sax xeetu yu saasam di wax ne mbindeef yëpp rek euh, yow mi nga xam ne seen maam aadama yaa ko bindoon na nga leen yërëm ñoom ñëpp kon loolu bind la ndax am na fu muy waxee naan chaxalat ni wax rabbil alamin wa xidmatu xayril alamin wa lishtigaalu bi masaalihi al alamin jaamu yàlla liggéeyal yonent bi salaam ak jëriñ bindee fi ñett yi ñoo tax ba taluma di mbiccoo ak di mbaaloo loolu bind la ci ab murit war naa fex boo tam jot war nañ cee jàngee ni ñu ko waxee sànq nit ku nekk mu dégg jamonoom xam fi jamono toll muy doxee noonu ndax li Sëñ Saaliw waxoon nañ àdduna ab tëli la tëli bi ni nga ko fekk rek noonu nga ci mën a dawee boo fekkee ay pax ci ay pax ngay daw boo fekkee mu tàlli ci lu tàlli ngay daw boo fekkee ay doodaan mën a daw kon jamono ju ne xam ne mbir yi dañ ko war a dëppale jamono wàññiwu ci dara nañ tënku rek ci njàngaleem lislaam wattandiku lépp lu jëm ci parparloo ci wàll pas-pas ak diine ndax sëñ bi ne woon na man itaxasa inna wa innama falaa yuaadi muslima maanaam inna cheytaan lakum aduwwun ak innamal muminuuna ixwa ne ñaar yi ko bàyyi xel doo kenn mooy seytaan li alxuraan wax mooy seenum noonu ne noonu bi leer na ak li wax ne jullit ñëpp ay mbokk lañ ak li mu wax ne falaa tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah képp ku ngeen gis muy wax laa ilaha illallah bu leen ko noonoo na ngeen ko def na ngeen ko def mbokk kunu muhibbina kunu muhibbina alxuyuura li jamia xalqi ilaahina almuqaddimil badia mbindee fi suñ boroom yëpp na ngeen leen yéene yiw te na ngeen leen yéene ak mbaax war nañoo jàng ci mbindum ci dunduk sëriñ bi jikko ju rafet xeex ñàkk xeexuk réer xeexuk réer sëñ bi lim sampoon ci ay daara lim wutoon ci ay téere xam ngeen daara ji sëñ Mbàkke Bousso nee na sëñ bi lim ci daje woon ci ay téere kenn mës koo gis yoo ci gox bi muy daala ji nga xam ne bëggoon na ko indi fii ci Touba te Cheikh Mouhamadou Mountakha ubbi ko nii muy lu am solo ñuy ñaan mu mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom sëñ Mountakha ba fekk njëriñu lu bare bari ci daara ji daara joojoog yeneen yi fi nekk yëpp muy azhar muy yoneen yëpp yooyu dafa dugg ci li nga xam ne lu sofu la ci bind bi sëñ bi jàngale woon ci xeex ak réer ndax loolu moo ko fi indi woon muy inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa mooy ci xam-xam ak jikkoy ci lay ci lay ci lay liggéeyal yàlla su ma doon tënk rek ndax waxtu wi sax maa ngi jàll benn ba ñaari minutes mooy ne daal dundu Seexul Xadim gi dund ku barkeel la dund ku fees dal la njëriñ la dund koo xam ne kenn mës sa gis lu ni mel ci njëriñ ci yiw ci fees dell ak mbaax ci fees del ak ay bind yu ñu mën a jëriñoom loolu taxoon na ba mu waxal boppam ne xustu xayaatan laa tura li xayri mujizatan baanat li usni xayri dund gii ma suñ borom defal gu ni mel kenn dootu ko gis ci kenn ne loolu nag suñu borom defaluma ko man waaye dafa bokk ci xarbaax yi mu defal yonent bi sallallahu loolu ci bind bu ñuy jëlee ci dunduk sëriñ bi ci la bokk ak li mu waxit ne baana li kulli man ko wilaaya kaw nii li rabbil alamina aaya képp ku am toq ak toq ci ci ci ci xam dara ci suñu borom ak ci ndimbalam xam nga ne man ci kémtaani suñu borom yi ci laa bokk wax ne la ashukku abadan fii kaw nii jaaral badiri ajaban lil kaw nii du ma sikki sàkk mukk ci ne dëkkaaleeb suñ borom laa te damay sax di doon kéemtaan ci mboolem bi defee yëpp suñ tubaa mooy kéemtaan goo xam ne loo ko gën a xam mu lay gën a yem suñ tubaa loo ko gën a xam mu lay gën a yéem portable bi bi muy doog a génn di foto da doon yéem ñëpp léegi kenn ñëpp xam nañ ko miin nañ ko waaye suñ tubaa safaan bi la loo ko gën a xam di ko gën a jege mu lay gën a yem kon nag li ci am solo rek mooy ñu xam ne daal suñ borom bi muy séddale ñun ñii bokk ci waa kër sëriñ bi sédd nañu fàttewuñu te sédd nañu lu rëy sedd nañu cër boo xam ne ku ko bokkut ak ñun am na lu la gañee ndabul suñ tubaali ku ci sukk dara rëccu la kon nañ ko jàpp ak suñu téeméeri loxo bañ cee dellu ginnaaw xam ne euh, koo xam ne boo taqee ci moom texe ak alaxira euh, lo bu la ci suñu borom boole war nga koo sant niñ koy santee nag mooy defar suñu jikko kenn ku nekk ci ñun fexe ba mel melokaan woo xam ne ku la gis xemmeem sëriñ bi loolu rek mooy lañ ñu mën a defal sëñ bi sëñ bi amul lan luñ ko mën a defal fi ne lu dul defar suñuy jëmm ba ku ñu gis xemmeem sëñ Tuubaa te loolu kenn ku nekk ci ñun rek mën na ci dara li Sëñ Abdoulaye waxoon ne ku ne da ngay jàpp ne aw sayu matt la kenn attunu say wi waaye ku ne da nga ci yor genn matt goo xam ne booy tëdd gàdd ko booy taxaw gàdd ko booy toog yor ko booy nelaw gàdd ko ca kaw waaye bu mu laal suuf mukk mu li Sëñ Muntaxa waxoon ne bu mu laal suuf ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom Cheikh Mamadou Muntaxa ba yéene yi mu bëgg a defal sëriñ bi yëpp mu àggale ko ñoo maa ngi siyaare kilifa yi fi teew yëpp di ko tàmbalee ci suñu waajur sëñ Hamza Mbacké ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp wax ji xam naa jaxasoo na li ma waajaloon it wax dëgg euh, matut àggut xëy na it mbokk yi niñ ko doon xaale waroon naa gën nii waaye rek moom mi ngi noonu euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tabaarakallah sëriñ ci waxtaan wu am solo yi ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci jotal gi dafa mel ne euh, li ngeen fi indi te toqal ko ci noppi ñi nga xam ne ñoo doon déglu lu ama ama am solo la biñ ci gën a jàpp rek te war koo mën a def muy kiimaan yoo xam ne eh, war nañ koo mën a jëfe ñun ñi nga xam ne ñoo topp sëñ bi saa su nekk eh, loolu mu waxoon Cheikh Ibrahima Fall ne ko doy na ma sëkk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam asamaan si nga xam ne moo ko doon tiim ak suuf si nga xam ne moom yonente bi ci la doon dox ma di ca dox di ko tiim mu mu di ma tiim may topp mboorum yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ak sëñ bi nga xam ne dañoo jege lool man nañ ni mi ngi nii kon war nañoo mën a topp fi nga xam ne foofu la sëriñ bi tegoon tàkkam war nañoo mën a góor góor góorgóorlu bu baax a baax ci lépp loo xamante ne bi jàngale woon na ko ak bépp jikko boo xamante ne bi sëriñ bi radiyallahu taala anhum melo woon na ko euh, ceñ nekk ci am njàngaleem ñi nga xamante ni dañuy sàkku xam-xam ñu fonk téer yi nga xam ne sëriñ bi da koo bind lépp lu mu ci jàngale ñu jéem koo def tey ñun sëñ bi rek lañ am ndax benn naaru gànnaar euh, mas naa ñëw ci sëñ bi di ko seereeloo ne ko dama bëgg nga seereel ma ne ma man ab sërif la sëñ bi ne ko ab sërif nga dëgg la waaye na la biir ne day loolu doyut na ngay na ngay tañ sa bopp ci aju gi nga aju ci man aju gi nga aju ci man daal moo la gën a mën a jariñ ci doon gi nga doon ab sëriñ kon loolu koy wax am naaru gànnaar xam nga ne ñun ñi nga xam ne ñoo aju ci sëñ bi war nañoo sant bu baax a baax war nañoo topp mbooram war nañoo dox ci ay jàngaleem li sëñ Maam Moor euh, tënk lépp ci waxtu wi xëy na mënuñ cee jaaraat waaye daal liñ ci soññee mooy ñu dégluwaat ko te it jàpp ko bu baax a baax ndax sëriñ bi lépp kiimaan la noonu ma ko mujjee lépp léppam léppi sëriñ bi rek kiimaan la kon ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla baaxee ñu nekk ci ginnaawam war nañoo sant suñ borom subhanahu wa taala bu baax a baax kon eh, ngir xataayu waxtu wi eh, dañ leen di xamal ne rek eh, jataay bi am na amoon na gantay di sëriñ Hamza moom Serigne bu di koo xamante ne bi ku xam-xam ñor la kuy jàppale daayira bi itam la koo xamante ni bi lépp sëriñ bi itam ñor na ko bu baax a baax ku liggéeyal sëriñ bi ñor la kon daayira moo xam ne ma di ko sant bu baax a baax ci teewaay bi ak mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoom la àndal muy délégation boo xamante ne bii bu am solo la euh, muy koo xam ne itam euh, ni mu taxawoo daayira bi ci xam-xam ak euh, ci wàll gu nekk fes na lool xëy na am na ci yoo xamante ne bii duñ ci nekk di ci yàgg waaye daal waa daayira bi li tàmbalee sëriñ Afiya Buso al imam bi nga xam ne mooy jiite ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam ñi ngi koy sant bu baax a baax ci mbooleem taxawaay yi di santaat sëriñ Mamor mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi Eh, di leen xamal ne subaak jàmm incha allah ñi ngi am eh, tomb boo xam ne day wax ci al ixlaas wa riya fi asri tawasul al ijtimaai muy eh, ixlaas sellal ak ngistal ci jamono ji nga xam ne jamono la joo xamante ne bi tasukaayu xibaar yi dafa yaatu lool mel ne réseaux sociaux yi ak yu demee noonu kon ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm